good morning, the and good morning to all our beautiful listeners out there sitting in your um, sitting rooms right now or using your mobile phone to listen to us or to um, watch us that brings you the breakfast. So it is another edition of the breakfast. show here on iAfrica TV, and as always and as usual, we will bring you um, uh, stories that has happened in the past weeks, interesting stories that has uh, happened in the past week. Um, we will discuss about it and also open the lines for also people for you out there to have your say um, in it. It is a beautiful Saturday morning, and I hope you guys are feeling the beauty of this uh, Saturday morning. Uh, and also, have you eaten your breakfast? Well, don't worry. You can just um, put your breakfast beside you or in front of you in the table, and then sit back, relax, and then enjoy um, uh, this, these two hours of program of the breakfast show of iAfrica TV. Uh, di leen sant di leen gërëm rek di leen nuyuwaat ñu leen di dalalaat breakfast show fii si iAfrica TV uh, di leen nuyu ñëpp képp ki nga xamante ne yaa ngi téléphone live si suñu social media handle si ñu leen di wax jërë ngeen jëf di leen laaj na ndax ndéewa ngeen waaye ba tey rek soo leen ndéewul mun ngeen a jël seen ndéewa teg seen bool wala ngeen teg seen kanami taabal yi foofu noonu rek fépp foo leen nekk ah, ngeen enjoy Eye Africa TV si breakfast comme ni ñu ko dee defee rek dina leen indil xibaar yi nga xamante ne ruusee woon na si week bii nii passé maanaam yi gën a fës si si biir réew mi ñu waxtaanee ko ak par ñu ubbi lines mi nga xamante ne bëgg ngeen a contribute si stories yi am fii nii euh, ngeen contribute rek su ko defee waxtaan bi euh, gën a ne parce que buñ fi toog rek di wax ah wala bàyyi suñ gan rek doo ñu tam bëgg nañoo ubbi lines yi yéen tamit ngeen wax ñu seen xalaat ndax ngeen gisee réew mi rew mi naka la mun a doxee ak si stories yi ñoo indi euh, mu nekk lu ama am solo di amati mbekk rek toogaat fii nii jàkkaarloo yen Mariama Thiam ah maa ngi fi amee nag ki nga xamante ni mooy suma co-host parce que du man kenn man ak ah, Mamadou Mbaye ah, Garmi la man bàyyi ko mu nuyoo rek balaa ñoo dugg si programme bi Garmi nuyu naa la naka sa suba naka sa samedi. samedi bi mooy mooy ne xanaa kay ndekki laa defagul ah waaye ci kanam xam naa ndekki nañ ko tàcc ñu ndekki du noonu ah, di nuyu bokk yi si daan ay Africa TV jamono jile si seen jotaay bi di breakfast su niki niñ koy defee rek. Euh, samedi bu jot ñu toog fii euh, nara waxtaanee li nga xam ne mooy tolluwaayu réew mi euh, ni ki ni ko Mariama am waxee rek dinañ fi am xibaar yoo xam ne yi gën a fës ci ay bés bi ñu indiwaat ko digtal leen ko soo ko defee ubbi bu mu jokkoo gi ngeen joxe seen xalaat ci noonu tamit ñu doog ci toftal suñu gan yi tey nag amal nañ leen ñaari gan yoo xam ne xam naa loolu moom ci kanam lañ koy lañ koy denc ñaari gan yu am solo yoo xam ne dinañ ñëw ñu waxtaanee tamit li nga xam ne rek mooy tolluwaayu réew mi ay euh, Africa TV noonu la koy rek daal di defee ni ngi ñu ko MC waxee rek ku ci nekk bu neexee nga téye sa mburu yaa xam looy ndekkee teg ko sa boor euh, di di di di di copp di di seetaan Eye Africa TV ñu leen di bégal di leen yee di leen tamit jox li nga xam ne mooy ay xibaar waaye tamit di leen indil ay gan yu am solo yoo xam ne xibaar yi dañ koy rek daal di faram-fàcce euh, ba mu rek tegee ci yoon lépp nag fii lay xewee Eye Africa TV ci breakfast show di ndewo mbuuru de surtout samedi bi nii borom jabar yeeg ñooñu noonu ñu si sawa ñu seen kër yi anga tegal leen ndewo déggulo waaw borom soxna waaw célibataire yi dañoo yëkkati mbuuru de célibataire yi ngay gis ñuy téye ay mbuuroog ay kandring ak ñu ci mel ni ay jooj ay lañ koy wuri ay bu la yàlla soxna ci kaw lal bi <laughs> okay <laughs> okay uh, uh, yes uh, that was me. my co-host uh, we'll be hosting this event um, this program uh, together as always so uh, we'll start um, with some of the we'll pick few stories from last week um, published by iAfrica TV and they're all national issues and we'll talk about it and then open the lines later but first we will start with the National Environment Agency under the Ministry of the Environment and Natural Resources, in collaboration with the United Nations um, Development Program, they have provided 35 uh, tricycles to five area councils in the Gambia. You know, as you know, councils struggle to cope with uh, waste management. These uh, tricycles is there to, to, to support them in their waste um, collection and other uh, related waste management issues. We'll go with that story and then come back and then discuss. The purchasing of these tricycles, supported by the UNDP, is the implementing of a GF-financed project titled Capacity Build for PCBS and UPOPs in the Gambia. Waste management is the processes involved in managing waste from cradle to grave. This includes collection, transportation, disposal, recycling, and monitoring of waste materials produced as a result of human activity. One of the major waste management problems in the Gambia is lack of adequate collection and disposal infrastructure. NEA's Executive Director, Dauda Baji, said the tricycles are to help councils in their waste management activities. Dr. Baji emphasized that it is NEA's mandate to clean waste from the streets. And this is what the agency can do. The agency, to be clear, also, it's also important people to understand that it is not our mandate to clean the waste from the street. That is very, very, that is very, very important. It's very, very clear. It's very, very clear. It's very, very clear. It's very, very clear. It's very waste management in their areas of the jurisdiction. I said today, UNDP country UNDP country. The activity are timely as the wall recently as the wall recently as the wall to bring back the, the population to the good practices that was already implemented in this country and make sure that uh, the protection of the environment is not only uh, the, the, task for the executive director of the National Environment Co uh, Agency or the minister herself, or the chairperson of the different area councils, but it's every citizen that has a duty to contribute to this uh, environmental protection. Meanwhile, the Minister for Environment and Natural Resources, Rohejon Manjang, said this activity needs collective efforts to be able to bring the project into reality. She further urged the councils to make good use of the tricycles and make sure that it is put to purpose. But it takes two to achieve objectives. The one that is implementing from the main side, that is here we are having the UNDP and NEA. But it also takes the one that is finalizing the implementation to achieve the objectives. And here we are talking about the councils. Honestly, we have seen councils complaining about the lack of resources to be able to discharge their duties when it comes to waste proper waste collections. But I am saying, yes, it is one thing not to have the finance, but it is also another thing to be innovative and readily willing to take up the responsibility. I am not saying that they are not doing their responsibility, but I'm saying that more needs to be done for us to achieve the desired objective the majority of waste generated in the Gambia is disposed of at informal dump sites or burned in backyards. However, uncollected waste pollutes the River Gambia and its fragile mangrove forest, eventually leaking to the Atlantic Ocean. These tricycles provided for these local area councils are expected to tackle the waste management challenges in roads, markets, pavements and other areas reporting for iAfrican News. I am Khadija Tujal. That report by Khadijatu Tujalo is a development um, by the National Environment Agency and as well as the UNDP um, for providing um, tricycles to five uh, local area, local government area councils in the Gambia in order to cope with management. We all know how challenging waste collection of waste, ma waste management is in this country, and I think um, uh, this will be a step in order to co to cope and to handle waste management because we've seen in the, around the Gambia on highways, you know, in the markets, how, how difficult it is to, to, to, you know, to cope with, like to manage, to handle waste in, in areas like this. So um, the UNDP in collaboration with the NEA, that is National Environment Agency, it necessary and think that it's going to be a very good initiative to give these tricycles to, the, um, to these area councils in order to keep waste management. Comme ni ngeen gisee story boobu nag ñi nga xamante ne um, ñoo ñoo wàllum um, dekkuwaay muy National Environment Agency ak ñi nga xamante ne ñooy UNDP ñoom nag euh, dina ne li nga xamante ne mooy tricycle maanaam cycle mag yi ngeen gis noonu euh, pour rek euh, ñu mun a collect waste maanaam mbalit yu jëm jëli mbalit si yoon wi wala si nga xamante ne mooy marché yi nag jox nañ ko five area councils maanaam five nguur yi ndaw ñi nga xamante ne ñu si biir réew mi Brikama bokk si pour dañu jàppale leen si maanaam si jëm mbalit yi ak yooyu noonu gar mi mu nekk lu am solo UNDP ak ñi nga xamante ne ñooy NEA e. waaw mi ngoog am na solo muy kuréel gi nga xam ne euh, ñoo ñooy ŋànk di xeex euh, li nga xam ne mooy pour setal alam bi mm-hmm. muy environnement bi ak tamit euh, kuréel gi ñu lëkkaloog euh, muy UNDP. Mm-hmm. ndax mbalit moom lu euh, amul fenn fu mu fu mu fu mu baax. Mm-hmm. ndax bu ñu jëlee lii jàppale ko ñi nga xam ne ñooy gox yu nekk ci réew mi defe naa juróomi gox buñ ci buñ ci jëriñoo bu ci mel ni Janjanbureh Area Council. Mm-hmm. fi mel ni Basse Area Council Brikama Area Council. Kuntour ak Mansakonko Area Council. da gis ne buñ ko joxee ñi ci war a jot ñu bañ cee dugal lenn politique ngir lu ko tax a jóg mooy ñu génne mbalit yi ci gox yooyu ci mbedd yi ci marché yi. boobaa njëriñal jàpp ndimbal loolu day day doon loo xam ne lu am solo lay doon mhm. Mhm. Euh, ñi ci war a jot daal nañ ko jot ñi ñi ko war a jot bu ñu ci jotee tamit lañ ci war a def ñu ñu def ko mhm. ndax it génne mbalit ginnaaw ngir tonni mbalit la euh, nañ fexe fu mbalit nekk ci gox yooyu noonu moo xam ci jay yi la maanaam maquette yi moo xam ci mbedd yi la ak foo xam ne jàpp nañ ne foofu mbalit waru faa nekk ngir ñu setal tamit suñu alam bi ndax tamit alam bi toppatoo ko dafa am solo bu baax ndax loolu mooy tax gàncax gi di mën a am taw te bu taw amul gàncax gi du naat te bu gàncax gi naatul da gis ne ñu ñu ngi wax ne Gambia euh, bokk na ci réew yi nga xam ne ci agriculture muy mbay ci lañ gën a wéeru kon bu mm-hmm. fekkee ne kon euh, gàncax gi dem na ba di nax saay lu koy waral mooy alam boo xam ne maanaam li ñuy wax soppeeku juux li muy climate change te lu mm-hmm. koy waral bokk na tamit euh, ci alam bi ñuy rek sàggane ay MC mm-hmm. lu am solo la su ko defee daal ñi ko war a jot nañ ci jot su ko defee ñu di koy doxal Mariama. après parce que su fekkente ne sa dëkkuwaay statut. Hmm. Euh, doo nokki. Hmm. Ah, dina jafe torop pour nga nekk si dëkkuwaay boobu noonu moo dee waral comme feebar yu bari nii rek. Ah, di ko jànkuwante parce que lan dëkkuwaay bi nga xamante ne ah, doy na waar waaye fan naa hmm. lii nii suñ ko defee into good use dina nekk loo xamante ne na am solo te dina dimbale nit ñi especially seen dëkkuwaay. gan mi ma ñëw si yow parce que ki nga xamante ne mooy Halifa Sallah di jiite doy. defoon na press si ay ponk euh, ma bàyyi la rek comme que yow yaa foofu noonu démb nga ànd nañu li nga xam ne Halifa Sallah wax na ko démb si press conference am jërëjëf euh, Mariama waaw démb ki nga xam ne mooy njiital làngug PDOIS gi euh, woote woon na ab euh, press conference muy doon jano ak taskatu xibaar yi ci makkaanu PDOIS ca Georgetown ndaje bi nag daal na fa waxtaan tolluwaayu réewu Sénégal la fa nekk di xew ci fitna yi nga xam ne moo fay xew ginnaaw ba nga xamee ni daan nañ kenn ci ku gi ñaari ati kaso muy Ousmane sunk loolu nag juróon fitna ci rek benn fanu juun ba am ay bakkan yu ci rot bu ñu sukkandikoo sax ci xibaar bi fukki bakkan ak juróom benn rot na ci téeméer yu ñu ci teg loxo ak ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaari euh, ñu ci jëlee ay gaañu gaañu loolu nag moo sabab euh, ki nga xam ne mooy Khalifa Sall moom nag mu ne jaadu na ngir rek mu daal di woote waxtaan ngir nu ñuy xool ba delloo jàmm ci réewum Sénégal moom nag daal na wax ne képp koo xam ne doomu réew Gambia ca wareef ci mbirum Sénégal mooy nga daal di bañ a wane parparloo waaye na nga fexe taxaw lépp loo xam ne ngir delloo fa rek daal di jàmm ni ki ni ko Sénégal defee woon eh, ci rek atum ñaari junni ak fukk juróom-benn maanaam 2016 ci political impasse bu fi xewoon ci réew mi li ci Sénégal xewe su defee rek ñu teewlu yaatal gi dellusiwaat. langue langue ca Sénégal muy usmaan Sonko des nañu ko tëj ñaari atu kaso ngir tuumaay xoy ab ndaw lu yées ñaar fukki at ak benn dogal boobu waral jàmmaarloo ci diggante farandoo usmaan Sonko yi ak takk der yi ba ay bakkan rot ci bu Sénégal sëxatee Gambie tisli loolu moo sabab làngu PDOIS gi ci seen njiit li di Xalifa Sall woote ab press conference ngir àddu ci ak itam nes leen wara def ba jàmm dellusiwaat Xalifa sàll yëkkati kàddoom yu njëkk di ab njaal jëme ci bépp yaay bu ñàkk doom ci fitna yu doon xew ca senegaal di mastawu képp ku ci loru nuyu ñépp ñu ñuy dégg ne waxtaan wi waxtaani mbokk la ñu dooree ko ci njaal di jaale bépp yaay bépp papa ci suufi Sénégal di jaale itam bépp dëkkandoor moo tax ñu bokk itam ca njaal moom di jàll suñu bopp. moom Khalifa sàll ginnaaw ba mu jébbalee njaalam dal dina ci teg ne benn xeex képp moo jëra xeex mooy fexe ba jigéenu wérul buy mucc ñu fexe ba mu mucc ak bakkan teg ci it doom ji mucc ci jàmm. ndax benn xeex rekk moo jar xeex te àddina nga koo xeex àddina bi dañu ne dinañ jéem bi nga xam ne. jigéen ji isi doom ci àddina du mun a ñàkk bakkanam te doom ja itam du ñàkk bakkanam boobu mooy xeex bi àddina di xeex muy fësal yéeneem ci ne bu jotoon njiiti réew ma Macky sàll xalaat bi mu am ngir déy ko ko ngir jàmm dellusiwaat ci réew ma di Sénégal suñ jotoon ci noppi président Macky Sall dinañ ko doon wax ne ko ana mag ña ana ñoom Wade ana ñoom Bathily ana ñoom Sawane fexeel nga woote mag ñi ñëpp na ñëw leen ñu waxtaan. muy bàyyiloo xel Gambien yépp seen cër ci tolluwaayu réewum senegaal mu leen di woo ci kenn bañ a bokk ci parparloo waaye na ñépp taxaw ci liy indi jàmm ci réew ma. sooy wax ci mbiri senegaal bul bokk ca wujj ga bokkal ci ñuy wax ne doomi senegaal dañ war a ànd nekk nawle. ñu dimbale leen gis-gis bi soppeeku jëf ji soppeeku ànd mun am loolu mooy suñu ndam. moom xalifa sàll daldi na fas yéene wuyu ji képp ku ko woo ngir lu soxal jàmmi senegal moo xam ci biir réew mi la mbaa ci biti réew moom noppi na ngir bokk ci Mouhamed Mbaye Garmi Eye Africa TV. waaw da boobu Khalifa Sall la ki nga xamante ne mooy garbi mi ngoog kii di Khalifa Sall moo doon wax addu ci tolluwaayu réewu Sénégal di rek ñaax MC mu ne doomu réewu Gambie yëpp seen taxawaay warul doon parparloo ci mbir mi maanaam bu kenn wane foo féete waaye li yitte ji mooy ñëpp taxaw temm ngir fexe nu jàmm delloo si waat euh, Sénégal euh, ngir rek ñu mën a dem ci élection yu jaar ci yoon te nag bañ rek am benn euh, fitna loolu yi moo nekkoon li nga xam ne rek mooy kàddu yu mu rek daal di yëkkati démb ci tolluwaayu réewu Sénégal si xam naa ne ñu demaat ci beneen story mhm, laata mhm. ñuy dugal suñu gan yi parce am nañ fi ñaari gan yu am solo yoo mhm. xamante ne nañ waxtaanee taxawaayu réew mi surtout si wàllu politique te di ngeen di ngeen jàng si lu bari parce que ay nit ñoo xamante ne nañ dañ xarañ si li nga xamante ñu siy yëngu mu nekk lu ama am solo rek lépp rek pour euh, seet réew mi naka la moo euh, demee kanam ak naka la Gambie di amee development in euh, politically ñu dem rek suñ story bu mujjël muy nga xamante ne mooy um, the Gambia has witnessed a surge in criminal activities um, over the years ranging from murder armed robbery homicide and other heinous uh, crimes but delivering his state of the nation address on Thursday at the status of security in the Gambia since 2022 President Adam Barrow said there is a decrease in crime rate in the country since the third quarter of 2022. So let's go with that story and then come back. In the last two to country increase in criminal activity increase and the citizens to take precautionary measures and inform the police on suspicious activities. Comparing crimes in the third quarter of 2021 and 2022, President Adam said the crime rate in the country has reduced by 12% in 2022. There is a decrease in number of crimes recorded in the third quarter of 2022. It decreased by 12.6% compared to the third quarter of 2021. At a total of 1,426 cases were reported in the third quarter of 2021 while in the third quarter of 2022, 1,247 cases were registered. President Barrow commended the Gambia Police Force for what he described as their remarkable work in decreasing crime rate in the country. He, however, urged the police to lower the rate much further. For the strengthening of peace and stability in the Gambia, President Barrow said there is an establishment for a National Peace Council from a TRRC recommendation. The Ministry of Interior is establishing a peace-building unit and creating regional and national councils for peace and social cohesion as recommended by the Truth, Reconciliation and Reparation Commission. The Infrastructure for Peace 14P project will strengthen the capacity of the state and other existing agencies for peace and collaborative dialogue while reducing the the likelihood of current and future threats in peace in the Gambia in a sustainable manner. Over the years, the Gambia Police Force has been working to curtail criminal activities in the country through community sensitizations, media engagements, and capacity building for members of the police force. Despite the latter efforts, more action is needed to handle crimes in the country, especially at the community level. Reporting for iAfrica News, I am Mariama Cham. That was President Adam Barra during his State of the Nation address on security in the Gambia. He said that security has uh, the crime rate in the Gambia has reduced by 12%, 12.6% um, uh, in the fourth quarter of 2022. That is um, last year, as he gave his, uh, you know, testimony, testimony or his report, as many would call it, his activity report of the government of the Gambia and the other um, sectors. Uh, Muneka nekk loo am solo ki nga xam ne mooy président Adama Barrow di réew mi on Thursday wax na ne nag li nga xamante ne mooy mooy crime maanaam problème si dëkk bi wàññeeku na by 12 percent ah, uh, depuis 2022 maanaam um, ñetteeli njeexitali ñetteeli xaaji 2022 moo ne wax na ne crime wàññeeku na fii uh, si si si biir réew mi uh, gan mi waaw lim loolu la njiiti réew mi wax nee na boo xoolee téeméer boo jël euh, fukk fukk ak euh, ñaar yu toftal li nga xam ne rek mooy juróom-benn ci li nga xam ne mooy wàllum crime euh, wàññeeku na baax ci réew mi njiit réew mi moo ko wax ci ñetteelu euh, pàccu atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñaar loolu yi nag askan wi ñoo ci gis seen bopp ndax askan wi jafe-jafe yëpp ñoom ñoo koy dund moo xam ci wàllu li nga xam ne mooy addu kalpe moo xam ci wàllu sàmba boy yi yu ñuy dogaale ak yeneen yi ci xew ak yooyu yëpp nag bu amee mm, li nga xam ne rek moo di askan wi ñoo ci rek eh, gis seen bopp MC. Mm-hmm. yaa eh, mu nekk loo xamante ni comme lu am am solo la moom wax na ne crime wàññeeku na waaye ñi nga xamante ne tamit eh, nit ñi si biti wax nañ ne eh, fanaa crime a gën a yokku si biir réew mi président bi la ak ñi nga xamante ne ñooy Gambien si am na Gambien si ñoo xamante ne ñoo ne crime teel a gën a bari si si biir réew mi parce que fi nekk ñu bari sax amatuñ fit génn a dem doxi seen soxla yi surtout guddi wala léegi-léegi sax danga ngaa dox si mbedd bi bëccëg mm. ñu la attaque di jël sa alal di di def naka su dul noonu mu nekk loo xamante ne c'est contradiction waaw contradiction la président mu ne nii waaye daal gàmbeen si ñoom itamit am na si am nañu si seen kàddu ñu daal ñoom hmm. gisuñu si seen bopp daal gisuñu wàññi wàññi crime fii nii si biir waaw loolu la ñu am na hmm. ñenn it ne ñu ne hmm. ñu ne waaw dëgg la mhm, li wax mhm. am na mhm. am nañu waaye su ko defee loolu mooy jar sax ñu wax waa euh, techniciens yi ñu ubbi bu mu jokkoo gi ñu jël ñaar bala ñett laata ñuy dugal su ñaari euh, ndaanaan yu ñu am fii mu ñaari gan bu ci nekk nag ci li ñuy waxtaanee nii euh, seen xel màcc na ci muy ci tolluwaayu réew mi ak njiiti réew mi kàddu yu mu yëkkati woon dinañ ci waxtaan waaye laata loolu askan wi su ko defee ñoom ñu ubbi bu mu jokkoo gi jël ñaar ba ci ñett ci ñoom su ko defee ñu waxtaan Euh, ñoom it su ko defee ñu wax leen suñu gan ku ci nekk laaj bi nga am ngir suñ ñaari gani yi mhm. ñoom it nañ ko rek daal def waaye laata ñuy kenn di dugg MC mën nañoo taxawaat rek ci euh, li nga xam ne mooy tolluwaayu crime bi nga xam ne njiitu réew mi wax na ni. Mhm. Euh, gis nañ ne ci euh, jeexital li nga xam ne mooy ñetteel ci euh, ñetteelu xaaju atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñaar muy 2022. Mhm. gis nañ ci wàññeeku bu baax a baax ci li nga xam ne mooy téeméer boo jël fukk ñaari ñaar mhm. ci jëf yu yu sàmbaaboo yi doon def muy dogaleeg addu kalpe ak ñàkk kaaraange ci réew mi nee na wàññeeku na lool yi moo ko daal di xamle su ko defee nag. askan wi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk ci réew mi askan wi lañ daan ah, dogale askan wi lañ daan fitnaal askan wi ñoo daan doj lool ñoom buñ ci duggee xëy na dinañ wax nuñ ko gisee ni ki ni nga ko waxee am na ñu ne lu am la am na ñu ne tamit ba tey tey la waalo gën a aay ndax ba tey nit ñi ñemewtu ñoo tëdd nelaw ba yandoot ni ñemewtu sax bàyyi seen néeg yi noonu rawatina sax ñi dëkkee ci yenn gox yu nga xam ne foofee euh, kii bi demeewu fa noon Mariama okay hmm. um, if you just want to call and contribute on this topic uh, which is the crime rate in the Gambia as the president stated that it has reduced in the Gambia since um, the third quarter um, in the on the following numbers in your screen 2323213, and that will, that will give me the privilege to uh, also. Um, tell you the uh, people that we have here. We have uh, Mamadou Sabali. Mumudu Sabali is the campaign manager of the United Democratic uh, Party. He's here, and then we will, be, we will be talking about political issues in the country, and we will also give him. Um, um, a, a, chance to, to talk to us about his um, opinion on the president's um, State of the Nation address, on the issues that he thinks you know he can you know throw lights on. We also have Isanjai. Isanjai also is a well-known um, political analyst. He's also a lecturer of uh, the University of the Gambia. He will be also here as a political expert to talk to us about um, political matters in the Gambia, especially um, the just concluded council elections. We'll be talking about more on that and also how how they can work together in order to make sure that the Gambia is put first and the people of the Gambia is put first. So before we go further, we have um, Hamadi Kebe from Funi Block. Hello, Hamadi. Hello. Hello, Hamadi. Yang Amady xanaa ndékkeegul Mariama. Ah. waaw xanaa ndékkeegul. xanaa la boobu. waaw célibataire moom. ñun suñu ndewu voice di dee eeg tuuti. mooy loolu. hello Amady. waaw dafa mel ni ah, Hamadi dem na comme li ma doon wax rek si kàllaamay ah, angale ñu fi am gan gan yi nag ñooy kenn bu am ne euh, kenn du leen wan mm. mm. ama am solo la si biir mi mm. kenn si ñoom mooy Mamadou Sabali Mamadou Sabali nag moo ne mooy campaign nga xamante ne mooy taxawaayu politique fii nii ci biir réew mi ko bàyyi tamit ki nga xamante ne euh, mooy Mamadou Sabali pour wax ñu tamit gis-gisam si li nga xamante ne président bi wax na ko on Thursday maanaam génn wax ak Gambian si lan moo si xalaatam ak lan la foog ne daal ah, président bi wax na ko wala waru ko waxut ko wala loo xamante ne daal waroon na ko si laal waaye gisuñ ko si moom dinañ ko bàyyi moom itamit mu waxtaan ak ñun si loolu noonu ak tamit mhm. eh, ci ci li mu postaloon si xëtu Facebook am ne am na doon xaar njiiti réew mi loolu la gis njiiti réew mi eh, wax am déet su ko defee loolu tamit nañ ci waxtaan ak hello Hamadi waaw gar mi ma jël Hamadi Ah, demaat na ah, ñu amaat tamit ki nga xamante ne mooy Essa Ndiaye Essa Ndiaye moom nekk na ko xamante ne ah, dafa màcc xelam dafa màcc si fii politique maanaam political analyst sa pare tamit nekk na jàngalekat bi nga xamante ne mooy University of the Gambia maanaam jàngukaay bi gën a mag fii nii ci biir réew mi muy University of the Gambia moom tam dinañ ko laaj si si xam-xamam si yi fii politique ak élection yi fii ñu jugee naka lañ mën a liggéeyee rek li nga xamante ne pour seet seet Gambien si gis nañ seen boppa si développement yi réew mi surtout surtout si local government council yi a defee rek pour make sure ne Gambien si daal ah développement am na fii nii ci ci ñu su ko defee it Essa dinañ waxtaane moom it yoon wi ñu mhm. war a jaar mhm. eh, ngir eh, bàyyi léegi nag politique bi ginnaaw eh, li nga xam ne mooy élection cycle bi defe naa jeex na mhm. ñi ku ci nekk ñi nga taxawloon ñi ñi am am nañu ñuy ñuy ñàkk kenn ñàkkul sax waaye xëy na ñu bëggoon am amu amuñu su ko defee rek ñu ñu ñu ñu na nag liggéey bi loolu tamit nañ ci moom du noonu waaye comme que tey dafa mel ni suñu euh, ñu dugg daanaka ndikkeeguñu mhm. mënuñoo wax bu baax mhm. su defee rek léegi dañu euh, dugal suñu gan yi xëy na balaay li nga xam ne mooy waxtaan bi di jeex mhm. mën naa am dinañ dugalaat euh, collège ci kanam waaye su ko defee ñu wax ñi nga xam ne ñooy technicien ñu tëjalaale ñu buumu jokkoo gi ñu daal di nag jokkoo nag ki nga xam ne moo di Mamadou Sabali di lootaabeeb langue gi di UDP waxtaan tamit Essa moom it di ab jàngalekat ci jàngone bu réew mi tolluwaay réew mi Mariama. Okay. Uh, thank you very much, uh, Garmi. Um, hence, we don't have uh, much callers on the line, um, and we have our guests seated already. We'll just go straight um, to the point. Uh, as usual, we have it. Um, we have uh, Esa and then Mom Sabali. Uh, but before we go further, we would like to um, you know, get their opinion on the State of the Nation address uh, made by the President on Thursday before we get to the um, discussion proper ma commencé si rek si um, Mamadou Sabally di la nuyu di la di la nuyu di la jaajëfal si waxtu bi nga bi ay Africa TV pour ñu waxtaan ak ñun uh, ñu bàyyi la rek nga nuyoo ba pare nga dugg si waxtaani um, President Barrow uh, speech am bi naka nga gisee State of the Nation address on Thursday by the President jërëjëf maa ngi leen a gërëm di leen sant di nuyu seetaankat yeeg déglukat yi euh, di bég nag pour ñëw fii kër suma raka Salaamin Kante team Eye Africa euh, di jégalu nag si management di ak déglukat yi euh, week si yeeg moon si passé mënuma ñëw fii pour any interviews ngir liggéey bi nu mu fa taajoo waaye foog ma jaale nag réew mi déj boo xam ne man maag Lamine Kanté ak ay Africa yëpp a ko bokka mooy déji honorable Aliou Jammeh former youth minister euh, suñ xarit la suñ mag la euh, liggéey nañu moom dama dugga si fii rek man a seen staff yi dama gis ne Komf euh, logo bi fële mhm. suma xel bi dem si I think it was 2012 ne Komf in Bansang mhm. am ne Aliou Jammeh I think at the time he was either permanent secretary or minister mhm. man maa ngi finance waa yëfi ndaw moom dama dee liggéey ak gars yi Lamine Kanté mu fa woon ay Africa then was A4-sized uh, print magazine alhamdulillah di jaareen ak famille Aliou Aliou Thiamé waaye di jaareen ndawi Gambia yëpp ak ndawi Africa yëpp parce que Aliou uh, liggéey bu am solo def si Gambia ak Africa uh, maa ngi remember di Banjul plus 10 summit bi fi def uh, continental event bi nga xam ne Aliou moo ko jiite di ko ñaanal yàlla yërëm ko xaaree ko àjjana man am still struggling to to process déjam bi waaye maa ngi jaale waaye di waxaat ay Africa congratulations fi ñu jógee mm-hmm. ten years ago ak fu ñëw fii alhamdulillah I think uh, the developments at Africa as a clear manifestation of the level of talent, mm vision, foresight and determination of Gambian youths. Ndawi Gambia uh, nañ ambition farlu nañ. Mm -hmm. Unfortunately suñ nguur gi gisee wuñ ko noonu nu ma ko waxee woon docteur Aïssatou Touré since then sa ooyaatuma ko docteur Aïssatou laa ko indee seen maalo tapale boobu dat coronavirus rise mune Gambia Gambian yu si ñoo war def bara ñi ni pour yóbbu pour e, ekati offload ak onload maalo yo xalé yi bañ ma bexi si nag lool mu ne bu yi bëggu ñoo liggéey way mom mu ngi nii ñaka na liggéey tay nguri Adama Baro ñu dawi Gambia Adama Baro ñu dawi Gambia respectu dawi Gambia dañ foog ne ndawi Gambia ay toy lañ yow Yang fi nyata yes. with pledges ya jaay mo ñoo fi kenn diggu ko ben halis in fact development partners yi dañ tej pompe yëpp benn xaalis dugut fii time boobu la Yahya Jammeh bil fii ay schools ay yoon university I mean uh, GRTS you name it create the platform that actually created this Eye Africa TV because GRTS su fi amutoon benn daw di xalaat ne war ngaa mun a am sa own media platform because time boobu dañ doon wax ne Gambia sax jarut ñu am télévision jarut ñu am university loolu moo nekkoon xalaat bu fi nekkoon nguur ñëw fii bi nga xam ne development partners dañ ko bañ a jox xaalis mu liggéey yow nga ñëw ñu ne la billion nga ne muus si sax dinañ si am seen waala ba tey gisuñ lu fi Adama Barrow def waaw su mënutee liggéeyal réew ndaw yi nag mënut leen a jox jànga bu baax mënut leen a jox liggéey warut ñoo yàpp parce que dem nga ne state of the union address ngay def nga ne da ngaa create 150000 jobs. benn woy bi yaa ngi koo woy for more than one year. Barrow def ñu yab de ndawi Gambia Barrow def leen yab ma wax leen loolu mu leer leen nañ. yow depuis 20 2017 yaa ngi fi we give billions of dollars and euros pump into this economy from the IMF from World Bank from EU tegal yooyu yëpp boor suñ xaalis bu ñoo dugga si arrankers bi more than 20 billion dollars per year saaca xaalis bi séedaale ko ay ministre di saaca xaalis in daw benn saaca gënu koo bon nag si dëkk bi mun ngaa saaca fu nekk saaca yëpp a bon nag waaye ministry of youth and sports jël seen xaalis jox ko sa jabar yabaate foofu la em yow xale yi seen jànga baaxul University of the Gambia ñu ngi enjoy cash power. amuñ ko soo amutee jànga bu baax doo mun am liggéey bu baax. may wax University of the Gambia wu nga ne correct benn proper lab amut fa. nga ne nga build a so called University of Science and Technology man maa wax ne c'est policy very bad policy. Barra Diouf moo ko fi door li mu def baaxut Père Gomes si su continuer si lu bon la waru fee am di nga nag yow yaa isi fi <laughs> barosi yo la neka, mhm. njanga bi Bahud, wergi yaram bi Bahud, more than 100 Gambian babies nyofi de due to the incompetence rampant corruption of the health authorities baro ñew fi xalé yi amuñ njanga bu baax amuñ liggey suñ tuké ñu deport len right now ñu ngi jël ay Gambians jël ay ay ay weñ taka sen tànka yeeg sen loxo dugal len into concentration camps fuñ fuñ dee yobu suñ suñ Gambians is worse than fuñ yobu won juicy tiny time Hitler jël ay attack dogs against them di deport ndaw yooyu si Gambia fii baro amul lu moo wax apologize sut Gambian youth si apologize sut si si yaayi nee na liir yooyu gaañu noonu mu ne ñun la moo nax naan dafa create one hundred and fifty thousand jobs you created one hundred and fifty thousand criminals led by your nephew Njaga Sane cause président Barrow moo fi toog naan suma youth si pare leen bu leen ragal su crime rate yokkoo si Gambia Barrow moo ko def te dafa yokku wàññeeku wut dañ koo nax Barrow lim du li foofu moom si boppam understand wut Oh, okay. I mean, how can you even read an 89-page document for God's sake? Because you have an, the most incompetent chief of staff ever in the history of State House, that Mod Cissé. Later, bu correct mënu ko binda. Man maa ko wax man Modou sabal, and I mean it. Duma fend duma social ken duma ligi dama ham ak moom xam naa Baro dañ ko nax, Baro naxaale boppam. dem wax loo xam ne moom si boppam amul sax li mu wax. ok 150,000 jobs you created 150,000 prisoners. ok Gambian youths in prison here. ñu nekk ak prison lañ nekk ñu nekk Europe prison lañ nekk Adama Barrow moo lañ moo ñu ko fa teg. man foog naa li ma doon séntu si Barrow te kii wax na ko man daf naa ko Facebook man du mhm. ma laaxaatu man li ma foogoon Barrow fa war a ñëw ne try naa munuma. dama resign dama step down ma call for snap elections baro loolu la warona wax. ndax yow fo nga ni baro dina tok di wax lolu noonu comme li nga bind ndax bi nga na tok su baro. if he is sincere to himself su dee déggu na si bopam xamna ne is the only solution to this total disaster that is the NPP government. sangour nguur gi koregut in fighting sosalante xeexante ngour gi su baaxutee sa parti bi bax mu tane gisuloo Macky Sall bu mbir mbi ñaange APR la oh balaa eh, balaa moo cabinet APR e, because political party dafa am solo waaye sa political party ñu saagante ñu ngi xasante sosalante things fall apart the center cannot hold. waaw mu he cannot step down. That was he, said because he's um, um a constitutional mandate. Gambians, you but know, it's the same not a crime to resign from the presidency. te war na koo def yo dal dafa wara resign baro dafa wara resign man lu uh-huh. ben cadeau bobu rek la am pour Adama baro mënut ta rewmi da mm-hmm. mu lor rewmi lorange loraange baa every single day fan nga musa gis in the whole world nga is the is the most corrupt deal security for ñuy wax lolu nga ne thousand dollars ñu yokk fa one thousand two hundred nga ne yegu loko an institution as sensitive as your airport you don't know what's happening there what else do you know what do we know about what's happening elsewhere in this country. ñuy wax loolu. Gambia mooy di only dëkk bi nga xam ne suñ citizens dañoo am pour fay visa pour dugg sa own dëkk loolu dara gënu koo métti. security port boobu yokku dollars per person. onto that charge nga ne yëguloo ko ba mu weesu benn weer te man su ma yi publish rek loolu on SGN media. Mhm. waaye boo waxee loolu sax nga ne ñu ko ana xaalis bi nit ñi fay moo tax maa di yóbbaate mu wax support naa because dañ announce rek ne waaw loolu waruta am ana xaalis biñ nangu si nit ñi yaa ngi preside over a country bi nga xam ne nit ñi dañoo ñëw daylight robbery on your citizens Barrow mm-hmm. should resign that's the only solution ok man ma fi ma ñëwaat rek mooy ci euh, fi nga waxee ne njiitu mi dafa a tekki ndombal tànkam mm-hmm. ma bëggoon rek ci ci ci ci euh, firnde yi wala ci dalil bi nga ko bi nga ko teg yow maanaam euh, ndaf defe naa njiiti réew bi dañ ko fal réew mi ñoo ko fal ci mbañ gàcce gi ci élection yu leer yu set mu mu mu daal di jëlaw gàddu yi di doxal jeexagul defe naa ne kayam ngi jeexalagul dese na ko euh, ci xëy na bu fekkee da nga jàpp ne am na yum def yum warul def wala am na fu mu la jegeyoo ci ca ci ca gis-gis ndax loolu war naa tax moom mu mu war a tekki ndombal tàngam te te te te jeexagul Mohamed hmm. loolu doonut lu ees si politique si démocratie Essa Ndiaye xam na ko fii in Israel nguur dafaa toog six months ñu resign ñu defaa élection Italy def nañ ko defaat yi bi time ñoom Silvio Berlusconi and even before that loolu doonut lu ees su yëfi démocratie njiit bi nga xam ne sa xel màcc na bugga nga sa réew déggu nga xam nga ne sa nguur gi doxut baro si bopa moo fi génnoon bu doon inspect those OIC projects mu ne am not happy mhm. mu ngi bugg a won a dégga bi waaye dem ba dara doxut economy bi doxut corruption am fi baro xam na ne there is corruption in this country inflation at 17 percent musut a xew in the history of the Gambia over 30 years negative real interest rate su ma la waree expliqué loolu lu mu si economy foreign direct investment munu fee am benn business man bu xelam màcca du isi xaalisam bi dugal ko si si koom-koom gi koom-koom bi si yokku wutee ndaw yi mënuñoo am liggéey ndaw ñu suñ mënutee am liggéey na la jaama di xewee si réew mi liir yi lu weesu si poison bi nga xam ne <laughs> docteur Samaté ak di medicines di corrupt incompetent and unpatriotic medicines control agency ñoo bàyyi garab yooyu dugga si réew mi nit ñi seen liir yi dee ñu ngee deport xale yi yaa ngee am fooñi instability inside fooñi musuta xew in the entire history of the Gambia mhm. xale yi fooñi mënu ñoo dem school jigéen yi mënu ñoo dem seen tool yi loolu yëpp a ngi xew baroo xam ne his lost control léegi ma ñëw si yëfi démocratie the voice of the people right li nit ñi nama ñu ëpp loolu moo war a xew baro fal nañ ko man maa ne élection boobu jaarut yoon setut tapale la man maa ko wax foofu laa taxaw ba tey ñu ñoo am parliamentary election local council election ba mayoral nit ñi génn a saani karta jox baro a vote of no confidence won ko ne bugguñ ko loolu su nekkutee dalil pour baro waaca wax ma lan mooy nekk dalil moo bañ rek dafa lanka because amul fu moo dem ah, xam na sàcca yi gars yi sàcca si nguur gi ah, te na mu ngee su ma wàccee ndax duñ ma yóbbu kaso foofoo la mu ne foofoo la nee na ba tey majorité si national assembly moo ko yor ba noppi ci local council yi da ngeen laal foo mu laal foo waaw waaye léegi oh. xam nga Ibrahima Ceesay was secretary to cabinet top member of NPP kooku moo génn xanaa déggu leen audio bi mu ne Mfotale Mfeltale West Coast KMC Powerhouse mu ne dañ fail coow li nekk biir NPP te yéen ngeen ko baro bu moo campagne benn flyer bi mu amee mooy moom as di Tyson moom mooy euh, moom mooy champion écurie bi bul faale écurie bi den nga am ñan la fa def Bakary Badji Ibou si Sidi Kacadula Cissé ñoom ñëpp ñu ñaaka ñu loolu rek la baro buggoon si local government mu ñaaka ko loolu su ko doytee biñ jëlee karta yi yëpp boole ko UDP dañ ko duma 15000 votes Barrow has lost legitimacy as president of the Republic of the Gambia and he must resign. That's the only moral, legal conscionable thing that Barrow can do right now. Anything else is just leading to the entire destruction of this country and the future of the young people who are jobless, hopeless. Okay, uh, that was that, that is that destitute. Is, yes, that Thanks is President Sabali. His incompetence and his corruption. Okay. That is Mahmoud Sabali um, uh, on his take on the nation's address of President Adam on Thursday, you know, talking about the youth and also the security matters um, um, in the Gambia. So we'll go straight to um, um, Isanjai. Isa, uh, we'll just allow you to go tuuti here with uh, sa Sahalat, xalaat sa uh, président bi kàddu yi nga xamante ne joxe na National Assembly about the state of the nation. Um, jërëjëf Mariama <coughs> um, Maria, ngi nuyu di gërëm um, all the viewers out there and then also the um, getting my brother Sabali, um, politician of course. Um, you expect the <laughs> that <laughs> zeal and passion to be there, mm -hmm. and of course I think for now, what na I think I have the ne mm-hmm. as far as the president's um, state of the nation address is concerned. Mm -hmm. um, well for me Thursday déglu won't speak bi. Mm-hmm. I did not also read it. I did not watch it because I was busy in class. Mm -hmm. I was so busy on Thursday. Mm -hmm so I didn't have the time. Um, so Dembala, <laughs> you know, went through the, the entire speech um, to look at it point by point. But then my last year when he delivered his speech, <coughs> my response was, from a standard newspaper even carried it, my name, um, he read a mayor activity report of an underperforming government. And I want to believe that 2023 as well, there is not much difference. Fimabuga start my, see sometimes président bi dafa war a di bàyyi am torop um, su moo face the citizens of the country speaking to them on issues yi nga xam ne affects them you see xam na leen la xam mooy ne Gambians yi maybe majority of us are lazy mooy duñ dee duñ dee bàyyi xel lu mu dee lu mu waxoon 2022 ak lu mu wax this year because okay there are points that he raised yi nga xam ne um, he mentioned bi nga xam ne okay I appreciate them but I would want to see more um, dafa elaborate more on those things. Mm-hmm. Why so whole mbiri 150,000 jobs bi more wax 2022 <clears throat> he said the same thing and no more within five years. Mm-hmm. that is 2022. Mm-hmm. and yet you come 2023 you said 150,000 jobs within five years. So five years behind the is stagnant. The five years is not moving or what? Okay. So there's something wrong with that. For now, Lulu, let's go what I just do. is it just by, by figures xanaa dafa ñëw rek wax figures yi or is he interested really in what progress the government has made because soo waxee 2022 150,000 jobs will be created in five years mm-hmm. for now su ñëwee 2023 you should update us ñaata liggéey lañ am amu def exactly exactly amu def 150,000 bi mm-hmm. but ban progress lañ register in terms of um, that job creation for now loolu was fundamentally missing te daf ko waroon a address And you see higher education sector being. He made mention of TVET, fine. But for me, his emphasis was more on scholarships mm -hmm. that have been provided to students at the university and all that. For now, Lulu is not really the thing that we're looking for him, mm-hmm. Because all MBD scholarship, Bobununu, man, I work at the university. Yeah. This has been happening since James time. Munyo to Barrow's time, it continues. Moene, most students that will be on government scholarship government gives them award letters and all that. Proof xaalis bi sax. Hmm. It's always a problem. It's a problem. More than the other time, staff association back university authorities had issues, mm -hmm. and the, the the matter was brought before parliament. I remember, I think um, Sidia Jata, it was the fifth legislature, ñu raise ko foofu noonu, and the government pledged to pro, um, promise to um, refund the UTG or pay UTG xaalis bu ñu leen amel. So that problem has been there. Léegi tamit. So president bi taxawé né uh, you know over 1000 or so students are 100 given million yeah, dollars yeah, 100 million dollars yeah. 1600 or so students mm -hmm. are being provided scholarship. Is this really coming in terms of I mean money or revenue to the University of the Gambia? Lulu question. Mm -hmm. But I think the emphasis should have been on research because you're talking about Ministry of Higher Education, Research, Science and Technology. It's not mm-hmm. only about scholarship, but we're talking Gambia Funtolini right now. The government needs to invest a lot in research. But we are not seeing that. So President Biwahud knew exactly you know, what his government's plans are in terms of investment or investing in research heavily. Okay? Because that's very important. Mm-hmm. Lulu is fundamentally missing. Okay. Because uh, I'm interested in higher education and I agree scholarship. Why, why, how, about, how mm-hmm. about quality? Mm-hmm. Yeah, no lie one, no lie one. This no quality bobu will come from research. Research so amute quality bobu is going to be missing because right now manlima de wa moinem ñun education system be I always say su ma here sometimes in ñi attack ma but it's not fit for purpose. it's true. and the only the only thing the only way we can address that Moy, mm-hmm. you invest in research. we do findings ñun education system then ko war a reform you restructure restructure ko. to suit the realities of the country, okay. our needs, our development needs and aspirations. No lower suit. Mm-hmm. So that is fundamentally missing. So I feel higher education being um, he should have emphasized more on that, especially in the research aspect. Mm -hmm. But maybe he has no idea the importance of research when it comes to higher education. When you say foreign affairs, mm -hmm. I think this, this was the <laughs> biggest problem because um, Sonia Vesi Foreign Service, like, I think that part was very, I think how much three, I mean, two, two paragraphs or one paragraph or so. it was very short and precise. <laughs> the president should have been. sir. dogo malade. Lan la badara juhu. Badara juhu I'm in foreign policy. Well, it, he well, said sunko amesa it is dormant. So, but then lima wa rek moy foreign policy especially towards Senegal. Mm-hmm. You know, the uh, money like the Gambia should be very serious when it comes to our relations with Senegal. Mm-hmm. Senegal has very strategic foreign policy towards the Gambia. The Soho has sent ambassadors, the caliber of ambassadors or high commissioners that they send to the Gambia. They are diplomats. These are seasoned diplomats, career diplomats. They served in the diplomatic service for long. Gambia. But then you look at the caliber of diplomats, the ones that we send to Senegal. So we are not very clear when it comes to our relations with Senegal. We are not very strategic about it. So for now, Lulu, the president should have, um, you know, should have, should have been um, very detailed okay. about that. Then okay. you see defense mm -hmm. the issue of um, economic, for example. but how manuta always the de muna lahatu, simbiri economic and all that. Gambians are interested in this. It has to do with national security. Mm -hmm. We want to know, yes, economic was the new extend mandate and all that, but we want to know in very clear terms what is the government's position as far as the stability and the security of this country is concerned without economic. We want to know that. We want to know what role is economic playing because so whole eh, research that is being done, even um, um, Afrobarometer research in the depth of mm. recent, from 2017 more to 2018, people have confidence in economic and all that eh, we want them to stay. Mm -hmm. But as time goes on, Gambians themselves, citizens themselves are saying that we want economic to leave we don't have confidence in them. We want the security of this country to be in the hands of our brothers and sisters in uniform. Okay. So that is something that the president should be very clear with. Nanyo Simbiri corruption. Mm-hmm. I always say that current state of the nation address, mm -hmm. it should be about the current state of affairs. What is happening in the country? The number one issue in this country today, everybody is crying about is corruption. From the Minister of Health, Minister Bitahauna, in front of parliament to say that there is corruption, mm mm-hmm. -hmm. COVID-19 Harlesby. Mm -hmm. National Audit Office report came out mm -hmm. and said a lot of things. These reports had been serialized by media houses. I mean, President, we know that he came out once and said it's a mere, uh, sorry, Nakalakawaye opinion, which yes. was so disappointing. Mm -hmm. But then, what is the government's position or stance in ensuring that audit office report be gets to NEMCO and then they take action in line with the recommendations that have been provided in the audit office report. I think in terms of fighting corruption, or recent corruption, of course, established a commission of inquiry into local government, and I think we had a program here mm -hmm. that was that is politically motivated. Yes. But I think in terms of corruption, President Biwarna Mowa, recommendations of the um, National Audit Office report. war na say wax dara Gambians are interested mm-hmm. dafa génn ne opinion la now we want to know as far as addressing the state of affairs of the country is concerned mm-hmm. war nañoo wax ne what is the government's position as far as the recommendations of the um, audit office reports are concerned mm-hmm. waxut dara si loolu noonu nga ñëw si mbiri deportation bi wax na loolu I think that is a very burning issue right now we're talking about I think um, 35 young Gambians will be will arrive in the country June 28th again. Sure. Yeah, June 28th. 35 of them will arrive in the country. Lima yes. read on Fatu Network um, news. So, I mean, this is a burning issue in the country. Mm -hmm. And so, Hole, what what plans does the government have in terms of then they want integration, integration, integrating these people and all that. But what what concrete and tangible strategic plans does the government have for these people? This mm -hmm. the problem of deportation. Mm-hmm. ma ne ma dee wax ne deportation deportation suñ government bi foog ñu accept ko because lu xew mooy ne African governments have continued to be beggars to these Western powers and Gambia is not an exception to that. lu ñoo def even our budget at some point we have to beg them. budget support and everything lu ñoo def as a development ñun foog we're talking about OIC project. okay just démb or so we made to understand that government has borrowed 891 million dollars. OIC projects, road projects to finish them. When a lot of Gambians were made to believe that OIC Project B is fully funded and everything is here, yes. the Nyodefa roads and everything. Mm -hmm. Okay? also even higher education, for example, Faraba Project B. I mean, 16 million dollars, is it dollars? I think 16 million dollars is taken as loan. Um, to finish the um, Faraba project. Okay. And a lot of us were made to believe that this project had its Bimumfa and everything. Now it's just to complete and then UTG moves. Okay. Just last year, September, UTG is not this year. This year, yeah. by the way, I think Body Junior, you know, no? yes. the Higher Education Ministry planned that the UTG should move to move Faraba. To Faraba. Mm-hmm. But we mm-hmm. cannot move to Faraba <laughs> because Faraba is totally incomplete. Incomplete. So, okay. all the labs and everything. So, these are fundamentally missing. President Bifongna's statement, um, I always say that most of the time, he is not well informed of the realities. te war na moo bàyyi xelam si loolu tourism sector bi a surprise that um, fisheries sector bi by the way go wax na ne um, the through the EU I think they've created like thirty thousand jobs. Um, you know in the in the fisheries sector waaye di illegal fishing activities that are taking place in our waters, Lulu is a concern to a lot of us. Mm -hmm. You go to coastal communities today of Katong, Sanyang, Gunjur, and all these, you have young activists. Mm -hmm. Just just two days ago, I think they the report Amnesty International, you know, um, you know, made a report on um, fishing activities, I think, in Sanyang. Mm -hmm. Yeah, so the report was launched. I could not join. That was the same Thursday, in fact. Yeah. I could not join. I should have joined this um, the program, but I could not join because I was busy in class. But then that is something that Gambians are interested to know. Because he, he made mention of, I think, $15 million is annually, $30 million is annually. $30 mm-hmm. million is annually. What is that? EU giving us that. Yes, you're telling us that EU is providing that $30 million is annually as a support in the fisheries sector and all that. But we have a deal with the EU. Okay as far as fishing is concerned in our waters. Okay. The Chinese um, fish, um, fish meal factories in, in Gunjur, they are causing environmental pollution and all that. Okay. So Loli is something that Gambians are interested in. Tourism sector be, last year I think in his State of the Nation address, I can't remember the exact figure, mm -hmm. but he said, he mentioned a figure that I think was was on the side, Like it was just too much. That every week Lowland they receive in terms of arrivals. Mm -hmm. And this time around, I think he said they are projecting, if all goes well, we're expecting 206,000 something like that, mm -hmm. 206,000 um, tourists to arrive in the country. Mm -hmm. But then you look at the sector as well. I mean, what is it generating for the Gambia? We know that the Minister of Tourism has million, how much, I think it's 60 something million dollars okay. um, project just this year, beginning of this, no, December, I think, either yes. December or beginning of this year, that project has been giving I think they mentioned a lot of things that you should take care of, renovation and all that, not of tourism yeah, sites. Yes. Um, Rehabilitation. Kinda Island, yeah. you know, you know, it's it's losing its value. I mean, not be Gate Bank or Yobu. Yep. And so we don't know exactly where we are as far as our tourism sector is concerned. So I think okay. President Bidevde Munanyorek touch issues briefly, and that's it. Crimes rate B, if you look at it, um, just two days ago or last week, you're talking about um, two murder cases. I think around the beach side, mm-hmm. you know, dead bodies being found there, nobody knows. So for now, those are things that um, so it was state of the nation address. The president should be recent, recent happening. So it won't be the crime rate. Those are things that you should even mention. But he was, but no, he like, was referring to the previous year, that is in 2020. Yeah, but the, lima, no, no, no, lima wah moy. Mm -hmm. This, mm-hmm. this state of the nation address. When, people should not be it should not be only in the past but present present this should be so contemporary that it should be so updated that even if the president is talking today. Mhm. state of the nation address 2023. li xew démba démba sax mun na koo wax you see soo bàyyee xel Jammeh. Mhm. man I'm not a fan of Jammeh with all his problems but Jammeh su moo deliver state of the nation address sometimes dafa dem off the xel si loolu dafa dem off the script sometimes he will talk directly to the people but Barrow dafa start. for two hours mm -hmm. or one hour some minutes. Everything is written. the script, going by the script, what is written verbatim for him. Okay. So at some point you have to put aside the script. Mm -hmm. You talk, talk about the realities, what is okay. happening right now. Okay. That shows that you are informed and well aware of things that are happening around you as a president. Okay. Uh, thank you so much, um, uh, Isa Isanjay. Uh, we just wanted them to, you know, just have a brief take, but it's like it's taken um, and and and um, some few hours, some few minutes. The report so. is 89 pages. What do you expect? <laughs> It was just a brief, like. <laughs> but the report itself was not brief. Yeah, like you just wanted your brief, um, you know, take on his uh, State of the Nation address. Garmis, am nga question kii si ga bala ñoo tëbu. ñu jógee foofu rek man uh, awma awma lu ma laaj ci wàllu boobu. ok ma bàyyi la ak ak ak Mamadou Saba. waaw ñu dugg si waxtaan bi. waaw moom moom léegi dañuy dikk xam nga Mamadou. Euh, moom moo nekk euh, Lotawé langue di yi maanaam mooy seen campagne manager mhm. euh, tey Mamadou suñ doon suñ doon ñëwaat léegi xam nga balaay joŋante goxaane mosoon nañu am benn waxtaan bu gàtt boo xam ne indi woon nañ ko sax ci xibaar yi waxtaanoon nañ ba ba nga doon wax ne mm, bépp toogu yi nga xam ne yéen moom ko moom ba pare yooyu moom nekkul loo leen sax di wuti mm-hmm. léegi li ngeen di wuti moy yi nga xamne nekul won ci seen loxo mm-hmm. yoy ngeen di dem jele euh génn nañ ci local euh, government election yi muy gox gohani gis nañ tamit euh, sa langue gi taxaway buñ ci am ak tamit euh seen wax yu bari manam candidate yu bari ngeen taxawalon ak bolé ci incumbent yi manam ñi nga xamne ño fa nekkon ci bare bare euh ñom ñom ño fa nekkat te it am yeneen yu bari yo leen yo leen dal di am ñu bëggoon ñu bëggoon ñëwaat nga jàngataatal ñu euh, seen taxaway bi ngeen am ci li nga nga xamne moy mooy jongante gogoxaan yu weesu ni ak it UDP muy sa yi euh ndam wala sax li yi ngeen ci am manam euh, ndam li ngeen ci am nuun yi rek ndam non ndam rek la waa def na ku mon sa morom duma duma nañ ko legi ndam yi ngeen ci am ci mom nangou de wa ci yene ci yene partenaire yi bu laa bik rek nga dik nga indi ci euh, liggéey bi naka la woon nga nga indi ci jangat ci ci ci ci walu ndax ñi ngi dogo a waxtan bi election yi weesoo ak legi waaw jërëjëf euh, Garmi comme ni ma ko waxee rek euh, alhamdulilah ñu sant yàlla parce que ñun suñ parti li daan secrétaire général bu result si génnee def ne liggéey li yàlla la mu ne alhamdulilah maa ngi sant yàlla mu ne dafa am ñoo xam ne dañ wane doole ñoo ne ñoom dañ am doole dañoo jaay doole yàlla wan leen ne moom rek a am doole laa hawla wala quwwata illa billah so foog naa mbir mi daal suma parti leader bi noonu la ko summarise léegi pour dem si detail si lu xew mooy maanaam going back to fi ma December 2021 electoral result was rigged it was fraudulent it was not reflective of the desires and will of the Gambian people presidential election dañ ko Satcha, man loolu laa wax musuma nangu bu Barrow winee nag ba almost ñëpp noppi si réew mi man maa génn result bi du dëgga the majority of legitimate bona fide Gambian voters ñu eeloo pour sànni karta Gambia ñu bari si ñoom Ousseynou Dabo lañ àndal kon Ousseynou mooy di people's president time boobu laa ko jox title boobu jamono di dem di dem a dem ba parliamentary election ñëw Barrow am e shock maa ngi remember <laughs> xaj bu ndaw boobu Lamine eh, Lamine Ndiaye mu ngi Musa toog gis-gis. di wax ne mu ne. roxilu na hmm? ñu ngi seetaan euh, roxilu ñaakana non non man politicien la saaguma amin euh, nit ku dul wax dëggal lan lañ ko dee ooyee loolu la wax soo si nag euh, dama koo repeat foog nga nga bàyyi ma ma continuer moom moo toog ne roxiloo dafaa ñaaka taalib dafaa ñaaka dañoo ñaaka mu ne yëpp la ñoo ñaaka mu ne UDP is finished loolu la wax waaye loolu fen la te kaddu yi si lu mu ko teg loolu mooy result 2021 presidential result fen la man maa ko wax moom Momodou Sabally I'm not apologizing to anybody for that na not true ahlu sufi yi nag dafa am wax bu buñ dee wax ñu ne lu dul yàlla neen la waaw te kon yàlla rek moo am kan mooy yàlla dalika bi anna allaha huwa al haq wa anna ma yaduuna min dunihi huwa al batil yàlla mooy dëgga lu dul yàlla rek safaani dëgga la so ñun si dëgga la ñeekoon man si kaddu dëgga laa waxoon moo tax tey may dox si dëkk bi réew mi mel ni comme ñay noonu lay doxee si réew mi parce que dama génn fii wax wax boobu waxtu boo xam ne waxtu wax jafe woon na pour wax lu dul prise Adama Barrow jafe woon na fii man maa génn ne Adama Barrow amul di mandate of the people nit ñi génn saani karta football bi fu mu nekk nii set na wecc wecc wecc councilorship election ñun ñoo leen gagné soo cegee di total vote te man li ma waxoon at that time I still it was a referendum mm-hmm. nekkut councilorship election rek nit ñi dañ am opportunity pour wan baro the state of the nation that's the real state of the nation man maa ne ku wooteel baro ñu mu taxawal loolu mooy ne kontaan nga si koom-koom bi this double digit inflation ndaw yi luñ ñàkkee liggéey deportation yi rey bi nga xam ne docteur Samaté ak health authority loolu lañ rey suñ liir yi parce que ñoom ñoo leen rey moo doon one hundred babies tourism secteur bi nu mu yaaxoo nawek nu mu bonee electricity rate si cash power rate yi ndaw ku votal Barrow ñu taanal rek yow da nga kontaan si loolu ku votal UDP ak opposition yow yaa wax ne nag Barrow moo yóbboo réew mi wut ni ñu génn a sànni karta Barrow lose di popular vote ñu ñëw mayoral lak mu ne léegi nag man suma bopp may dugga si man may head of the écurie man may génn mu ne ku man sama ram duma génnee na xaalis use na government facilities Bakary Badji mu ngi doon campaign with government government vehicles man maa ko gis nii ak suma bët yi hmm. te Bakary Badji nag ndaw yim àndal maa ngi leen a eeda xam naa ne seen xarit leen seen kuru leen bokk waaye maa ngi eeda gaa yi yëpp amutee fi xaritoo li ngeen di jiiñ mag yi di wax ne euh, ñoom looyaa daa boog ñii munuñ politique nu ñoo doxalee baaxut paa yi ñoo ñu génn seen loxo bi ñoo ndox bi ñoo raxasoo seen loxo si moo ñu génn ñun ñun yuut si nga nga xam ne ñoo ñoom ñooy di too not too young to run generation ñun paa yi ñoo ñu génn parce que li ma gis campagne kan they are all youths and they are government officials manning youth institutions mm-hmm. using those resources to support partisan politics maa si ñoom docteur Cissé nga dem jaay sa boppa comme ni ma ko dee waxee tamanan qalilan nga naan mu ne 42 yaay compagnie la ICP ana yaay compagnie yow gomatuloo dara sa parti bi sax da nga ko jël nga jaay ko broad daylight because of what aduna xaalis nga bugga ak moto because da nga feel ne su Bakary Badji gañe yow di nga nekk youth youth minister wax naa ko gars Facebook ma leen woyi angale yi la what does it profit a man to sell his soul to gain the whole world nothing absolutely Gambian si ñoo génn a gis seen boppa gis ne kii nag def ñoo nax te man gëm naa ne ñun UDP suñ landslide victory bi ñu am nii waa NPP am nañu si sànni karta because dañ dem ba gis ne baroo def ñoo nax te xam nga one of the reasons lu tax ñun ñu gañe some of the illegal voters yu gars yi register am na luñ leen dikk gars gi gisuñ loolu ñun suñ daw yi nag maasi buuba sana njaay gi from parliamentary election dañ dem ñu nekk police at the borders and they fought physically ñi nga xam ne ñooy isi fii foreign voters so gars yi ñeme ñemeñatuñ so dañ control loolu this time in Farafenni suñ xale yi foofu ñoom Arfan Diba ak ñoom euh, suñ councilor bi foofu ñoom Alaaji Haydara dañ dem ba def press conference in Jara and other areas man suma boppa suma campaign bi bokk na si dem engage political activists across the border ne leen ne buggu ñoo gis seen sànnikati karta yi ñuy ñëw fii suñ gars yi around North Bank dem nañ to a mayor inside Sénégal ne ko li léegi lii mooy xew mayor bi mu ne yëgu ko waaye dina wax ak gaayam yi dina wax ak euh, opinion leaders si foofu ñun dañ liggéey li ñu am de bi idnillah si ndimbali yàlla Gambian si ñoo joxe a vote of no confidence to Adama Barrow corruption la ba tapale bi nekk si réew mi ak ndaw yi nga xam ne seen jànga baaxut amuñ liggéey baro xamut sa ñaata ndaw ñoo ñaaka liggéey mm-hmm. ma ne jàngoro boo xamut xaamee yu ko mënuloo koo saafaraal di si dellu nag esa benn point bu mu am parce que duñ fi nekk rek di ŋaaña nguur rek loolu dafaa yomba mm-hmm. education ak nguuram bi li ñu war a def mooy wéeci nu ñoo jàngalee suñ xale yi mm-hmm. this is the era of AI artificial intelligence Eh, Père Gomes nag dinaa ko tudda fii am naa ne état du bugg ko waaye dinaa ko duta am nga back to the same thing ñun ndaw yi toogee fii di wax ne paa yi munuñ paa yi dañ war a wàcca ñun ñu ñun ñu toog foofu ngay am a so called docteur ngay nekka dem nekka yaay compine yaay compine bu guur docteur Cissé loolu la doon nekka boy boy Fatou Ba Baro te yéen docteur Cissé li mu waroon a def léegi comme que amoon na disappointment am si presidential election go back to the university work with these there is nothing preventing from Dr. being a president of this country still su dee déggu mu bugg a mi ko suñ jàng bi moo yàqu loolu so long as loolu defaruñ ko réew mi jëmut fenn maa ngi aide nag président Barrow si loolu on a completely non partisan basis to have a relook at education su ma sañoon ma ne national conference on education waaye boobu mooy ñu isi seen youth mobiliser si NPP ak yaay compi ñu nekk speakers ñoom Essa audience but ma dog bii du political Uh, Essa Moko was held them, see. And I think it's very important, it's fundamentally important to rejig and reboot the educational system of this country. Mm -hmm. I'm very disappointed in Professor Per Gomez, this politics of scholarships. Uh, students graduate, nga nga joxe 10 scholarship ba you, ñooñu ba tay demuñ fenn. Students yaa graduate in their thousands amuñ liggéey. Nga ne change MDI into a civil service college. Come on, let's be serious, man. That's a joke, for God's sake. MDI, Management Development Institute. fu mu nekk liggéey bu moo def doyoon na. nga ne is even school of business administration right already under the UTG current UTG dispensation. all of France dañ dee am de whatever administrateur nga ne da ngaa toog loolu ñu ngi nax président Barrow and sometimes to be honest dama dee yeneen président bi because président bi ñu ngi nax te moom amul that mental acuity to comme esa lu ma wax to drift away from the script yaa dama yaa dama fa daan def. man su ma wax du ma daan neex at a level of sincerity and honesty. I remember in 20, 2013, come to, go, go into 2014, Nigeria sent centenary anniversary. Then mm-hmm. dem yaay dem was not a speaker. The following day ñu ne mu joxe speech ma ne ko dama bëgg a dem bindal la speech. ma ne ma wal it depends on what you write. soo bindee lu am fula dinaa ko read soo lu am loolu la ma ko waxee si in his hotel mm-hmm. lu am fula ma ko sànni. that's how a leader should behave. te lii loo jàngut doo ko tari da nga koo doon dama dem suma hotel room after one hour ma jox ko speech Yahya Jammeh read that speech the greatest speech ever delivered in Nigeria's political history it's on YouTube Nigeria centenary so Barrow these people are not fair to him gis nga li nga wax this state of the union man I've been working on this for almost 10 to 15 years depuis bu ma nekkee central bank nu ñu ko dee activities but also naturally dafa sa parce que expected nguur mut mhm. ñun mutuñ as individuals suñ paree toog fi ne nguur dafa war a mun naa ne suñ boppa waaye nguur soo waxee ne li lii laaj def waxal ne li léegi lii ñooy suma problème yi mhm. li léegi la ko saafare waaye ministry si every ministry sooy bindaa da ngaa bugg a def pour àdduna bi gis ne yow yaa na mun a liggéey mhm. léegi des na si secretary général and that role la Adama Barrow dilute mu split ko into two jox Sali Salimata Touré SG jox Mor Cissé chief of staff Mor Cissé mooy run state house te to Touré half brain am moo gën Mor Cissé kooku mom dafa xamut sa left from right si yëfi xam-xam. so i amee a proper chief of staff at the time Mom, mooy edit all of these ministries lu ñoo binda xëj na soo So sax soo gisee bu higher education bi nga call ESA ESA man I'm not an expert in this area what do you think of this report what should be improved for the first place nga slash and gum combo by by 50 percent. naturally nga soog edit jox ko président bi. Barrow dama ko yëre waaye na resign moo gën parce que li di jàngoro bi bi AIDS la kenn mënu ko saafara waaw waaw eh, saa bi ma bëggoon léegi waaw waaw balaa ñu dem si Essa ñu dem si waat ci ci ci ci UDP ndax gisoon nañ euh, kii euh, xew euh, Banjul mhm. def naa ne nañ bi ñuy waatal ki nga xam ne mooy fara roxi roxi Malick Lo mhm. euh, ñu gis ñenn ci ñi nga xam ne ñooy kansulo yi bokk ci euh, NPP mhm. euh, am lu luñ luñ ñaawlu woon ci mbir mi ba tax sax ñu daal di gedd foofu dem dem bañ bañ waatale leen ci ci ci beneen boor ci lu ma doon dikk rek ndax loolu du du tàmbali li nga xam ndax boo xoolee dem na ñëw ale yowén UDP euh, moo moo win Banjul maanaam euh, li nga xam ne mooy euh, mayoral élection yi waaye soo xoolee council yi majority foofu noonu NPP moo ko am ndax si juróom-ñeent ñi lay am juróom juróom-ñaar te def naa ne ku nekk soxla na sa sa morom liggéey li xewoon foofu est-ce que du wane wut ne ñoom ñoom ñi nga xam ne ñooy mayo bi ak kansul yi dina am benn jaxasoo ba liggéey bi war a am ngir askan wi gis seen bopp euh, du du du gàkk ndax buñ buñ lu lu lu nuyoo ci dañuy wax ne xaw ma wolof nee na euh, li tasse yi nuyoo woon na ci njëlbeen dañ koo fayul ndax UDP amul ci responsibility NPP am ci responsibility ngir ñoom ñëpp ñu xam ne euh, waa Banjul léegi ñoom li ñu waroon def def nañ ko léegi li ci des mooy ñu ñu dénk seen seen xob yi muy seen baat seen kaddu mooy ñu liggéey leen waaye te ba teg nag li nga xam ne mooy affaire UDP NPP yi ngir ñu doon ñu doon liggéey nan nga gisee woon incident bi xew foofu noonu. ok Mohamed I'll be honest. loolu bu ma ko gisee kontaan na. ok euh, foogoon naa ne mënoon nañoo def lu gën loolu. askan bi. ok nañ karta sànni karta jeex na man euh, the following day ñu converge suñ supporters yi kër looya Darboe euh, waxi kilifa la fa wax. bi waxee ne mu sant yàlla kenn amul doole ku yàlla mu ne UDP mayors nañ liggéey ak UDP candidates being biñ elected, électé nekkatuñ UDP mayors I think that's uh, that's high level rhetoric of uh, exquisite decorum only becoming of a learned and patriotic Republican like excellency people's president the honorable Alhaji Loya Ousseynou Nankunda Dabo so man li xew I like it and uh, lima ma I think both parties then you a toog ñu waxtaan ñu seet problème bi fu ñu jógee cause nu ma toog fii tam di pass judgment ne li léegi lii moo xew euh, nañ toog ñu waxtaan ñu liggéey together daal euh, man am a politician true and true and very passionate and I don't hide my my passions about these things mhm. waaye Banjul daal lu fa xew neexut ma and I think UDP uh, camp NPP camp nañ toog ñu waxtaan Banjul is one family man Banjul laa juróo ba tax na sax politique Banjul du ma si dee xuus torop because ñu ne NPP seen candidat si suma brothers lañ Ibu Papa is my brother Aziz Daba Gueye suma rakala papa moo ma jàngal alquran Rohilo is my sister practically my favorite among all the politicians in this country you know so uh, Rohilo tam moo ñoom Ibu ñoom ñoo bokk a Banjul so man li ma wax daal I think nañ toog ñu waxtaan but dinaa bu eeda Adama Barrow ak nguuram bi not Barrow himself because to be fair to him nekku fa won an baro am wax na kaddu yi xam ne neexut ma before election mooy bi moo suuf suxal boy si after election baro change his tone to be fair to him mu ne election jeex na let's work together and I commend him for that so the authorities at the Ministry of Local Government at Lands bii moom maa fi gën a Adama Barrow waaye bii bléemu ma Aba Sanyang and the PS man I think ñoom ñoo war a leadership parce que loolu seen event la that was not even Rohilo's that inauguration, that swearing in. So maa ngi gis ay nataal because nekkuma foon to be honest. Mm. ma gis the PS local government after all the fracas mu ngi nataalu ak NPP councillors yi which is his right but uh, moom ni mu behave foofu si report yu ma am kontaanuma si like I don't want to bugguma xamba daay bi si lii. li xew xew na ma si definitely I would have loved ñu am a perfectly smooth. inauguration like what we had elsewhere. Okay. It happened in Banjul, my, even in Kiang. Defunyolu, the, the chairman for Jara is from Kiang. Like I Defunyolu, they did a very nice one, civilized, you know. Okay. So I think, uh, man, I'll just say it's a mistake. Okay. And uh, I, I repeat, I'm not here to blame any party for this. let the council reconcile reunite newly liggéey Banjul for foofu mooy suñu capital bi. ok waaw uh, thank you so much Sabally Essa ma ñëw si yow rek because comme ni ko Sabally waxee ak ni politique passé na. Um, but but but gis nañ ay issue um, issue of um, ñu ñu ëppale councilor ñu ëppale wuñ councilor gis nañ ko si Banjul NPP councilor si tooguñ pour ñu waat ak uh, ñi nga xamante ne ñoo yeneen councilor yu fa nekk parce que lan provide seen nit ñi toogu mu nekk loo xamante ni ñu bari ñaawlu nañ ko ndax foog nga ne suñ yóbboo façon attitude bii di suñ ko yóbboo council foog nga ne day ndax foog nga ne liggéey dina fa mun a am because dafaa nekk day comme there is going to be a division because ñii suñu waxee ne ñun lii la ñoo def ñu leen ne lii la ñoo def duñ mun a ànd because of one seen their party politics like their party difference ndax foog nga ne like they um, a party difference should be taken to council hence foofu noonu voté na leen ba pare but they are there for the people but not their party so do you think the way you see things happening you know ndax nit ñi dinañ gis seen boppa si council election yi ak seen ñi nga xamante ne tànnal leen pour ñu dumba defal leen seen council si. Um, jërëjëf foog naa laajte boobu am na solo trop. Um, but leen laa bëgg a clarify. Mm-hmm. because many a times a lot of Gambians say this president bi si boppam. Mm-hmm. Um, immediately after the mayoral election wax na lii when he was talking. Mm-hmm. gis nga politics du mun a jee. dañ bàyyi di wax ne politics passé na politics jeex na. politics du mun a jeex kon ni election jeex mm-hmm. mm-hmm. election mun na moo passé mm-hmm. politics is a continuous process it's everyday activity of the state because it's about statecraft waxtaan bu ñoo am fii nii politics la suñ na politics jeex na si réew mi mooy ne yéen ay Africa so you will never host anything related to politics in this country <laughs> or you know how anything related to Gambian affairs Okay. so anything lu ñoo def within the state politics la so politics du mun a jeex party politics sir, du mun a UDP NPP APRC any other political party has the right to come and say we want to have a meeting mun nañoo am rally so so politics du mun a election cycle daf dee mun a elections jeex na now we focus on something else yes yeah but still politics will continue te moo tax president bi su was sometimes um, because I remember also I came across one document <clears throat> And I saw like, okay, when they use this term, non-political and all that, state institutions, you can't say state institutions will be non-political. So overhanded, it should be non-party. Sabal has been very nice and polite with it. But then, man, prior to the election, come what everybody, I mean, I was also disturbed by the president's statement that he made in Talinding and Ibo town. Okay. now those were very unfortunate. Mm -hmm. You know, he was passionate about it because this nane, um, parliamentary election, be, the party did not perform, council election did not perform. And I, and I totally understand. Okay. Um, you know, if he was so much interested in the mayoral election, mm -hmm. this ne party be win na mota mom si bopam, <coughs> mugena the campaign, which I have no problem with, that was fine. But at some point, he's the president of everybody. Mm-hmm. Momoko wane momoy burigambia. Mm-hmm. So I think um, at some point, mm-hmm. small wana mo by helam, um, even on partisan political platforms. Okay. So fumwa hene, <coughs> swing dawi, the boys bulen Dragal come yana neka in power and all that. Lulu sent a very bad message. The Fognada was the root cause of the problem. Mm -hmm. He said that on Thursday in um, Ibotan. Ibotan, yes. Friday, cooling off day or period or whatever, mm -hmm. we saw that incident, right? Yes. So, and the boys were out. This was night around body 1 p.m., mm-hmm. to, uh, 1 a.m., 2 a.m. Okay, so at some point, you tend to question are these people doing this on the orders of President Barrow? No one knows. Yeah. Understand? So, man, when we were making analysis on Kirfar, they were not happy with that. But you don't expect you don't expect anything from Esa and Jai with regards to such reckless statements. I wouldn't come and bootleg anybody. li ma leen wax mooy président lu mu wax tey after voting at Bakati Square is perfect but it's very ironical and contradictory to what he said on what he's, okay loolu we don't expect it okay so we saw the youths out there luñ def okay and li ma wax gaay mooy ne president bi lii billahi this is just the beginning of the fight lii du musa jee okay this problem will continue te moo tax what did happen in Banjul I said this did not surprise me mm-hmm. because it seems like come okay, councillors in Yeuneng. Sabele, we know where the problem came from. We know it. Councillors in Yeuneng, they had their seats being already allocated for them. Delegates in Andal, fine. So they okay, I'm in your talk. So they man, we don't understand. So they nyom nyom joko na Then johun lang togo. I can understand. Why so we sa johun lang togo? I think there's a way to sort it out. Mm-hmm. you can even talk to them provide seats for these people. They are our delegates. Okay? You provide them, but does it warrant you to boycott the swearing in ceremony? Just because same guy in ñi and the new new amutoon toogul. Let's be honest, nañu hante dega. lii amut laaxatu. What happened was, that was not necessary. It was not necessary. We nañ not address in a different way. It was not necessary. Okay. The buñ ko What we saw was that I think they went to the same council building or whatever, the other office. Yes. We saw sitting guy there. Mm -hmm lan la moo ut foofu when they came out they were sworn in ngay téye on the lawn and all that so it was very unnecessary and what happened again unfortunately was that they attacked journalists as well mm-hmm. Mm-hmm. so lu ñoo wax mooy ne President Barrow lu on Thursday bu leen ragal in nguur and all that mm. maybe even his councillors were working based on that orders so Barrow so ne doo blame Barrow Barrow has a role in this I actually stand my no no no no ok léegi waaye li nga ma wax mu wax he said a statement and statement boobu noonu it was so loaded okay mun interpret anyhow bi mu ko we saw the attitude or the behavior of some of these young people and then all of a sudden come to the nomination we saw how these councillors behave as well even to physically assault journalists doing that moo tax journalists ne journalist yéen journalist we've got to a stage in this country bi nga xam ne it's either you fight back physically or you take legal action on your own these useless condemnations coming from GPU these are just useless it will not address anything in this country yéen la ñoo téye fii dóor leen at the end of the day you suffer nobody will stand for you condemnation bu ñoo joxee ni NPP di ñëw di joxee that condemnation this problem 20, since change of government, 2017 last start on. Mm -hmm. You remember that press conference that UDP, NPP, and GDC, uh, eh, sorry, NRP and GDC, um, GMC organized? Yeah. No, Kotumala, according bu, bu, to my father, yeah. one, Kebaji Fan Doi militant la. Mm -hmm. Kebaji Fan was physically assaulted. Mm -hmm. ba UDP militants there and also GMC and NRP militants ñu fa nekkoon. ñoom noonu laay wax ni loolu la. non non li ma wax mooy non Sabally bon li ma moo tax ma ne non non déglu ma moo tax ma ne UDP NRP militants ñu fa nekkoon ñoom ñoo ko assault Understand? Mm -hmm. Condemnation, condemnation on all that. It continues. Yeah. But some, yeah. No, no, no, what I'm saying is, okay. no, but, yeah, yeah, assault. But, yeah, but, but that one, I'm double saying that leave him, Biden comes. Mm -hmm. He will ask, we no, no, no, the peaceful party. no, no, no. He will ask, okay. I had, I had him say violent mm-hmm. call. He will ask the question he want to ask, not what you want him to ask. Mm-hmm. Deganalula. But we had my father at some point saying that, no militant but the UDP, GMC, NRP militants, you for Nekon, mm-hmm. ñom assault. Yes. That's the fact. Mm -hmm. So it continued. ñom Buba Gajigo they attacked them state house fee. Lan most ci GPU condemn. Yen tamit I mean this guy pa Usman Diouf attack Condemnation. Condemnation condemnation will not solve anything. It's either ñen fight back physically. I am saying this on records and I'm not withdrawing it on apologetically. fight back physically if you can. Bulen hair xeya ko xamne mën na dal. Waye ko len fight back. So if you cannot fight back physically, take legal actions on your own personally. Okay, about that fighting back. okay. do, do solve anything. So I cannot just imagine a ruling party physically assaulting journalists. All that then people were to say that uh, we were not aware of it. Sidinja was there at that, swearing-in ceremony. Luther Sidinja, if he wanted to show leadership okay. as deputy speaker of the National Assembly, those councillors go back. Okay. we cannot boycott this because this is our first time. Nyun, as a party, it is the first time we are having counselors. Exactly. exactly. This, this is why I'll come in mm. because you said um, if we need to fight back either physically or we take legal actions and other things. So don't you think the fighting back is a bit um, extreme? So now here, because um, most of the time journalists are attacked by party militants. So don't you think like it is high time for political parties, you know, to, to, to, to sit um, together and then talk to their militants that these are journalists, like, like they're not enemies of any political party, but they're just there for the people to get the information to relate to the people. So, you know, I think it is high time for political parties party because, you know, what, look, okay, GPU has made um, several um, meetings with political parties on the safety of journalists in their events. You understand? Mariama, let me help you. And most of these assaults happened. Mariama, like, sometimes um, you see, we, we are so idealistic. But Marinho, let okay. me come, let me come. Okay. Sometimes people are so idealistic in this country. Let's be realistic. Okay. Fee, journalist, fee. These political parties, even if you talk to them one million times, some of them already have a mindset they will never change. Okay. I'm not they will label you people. I'm not you go to Kerfatu, they will label them am not ñoo xam ne they label the people at uh, the journalists working at Fatu Network all media house all journalists are labeled in this country whether you like it or not. Mm -hmm. so at some point some of you will even go to events. okay that you are not even welcome. loolu daf dee am political party gatherings they don't even welcome you nuñ naa xoolee sax sometimes the way they engage with you you know that these people are not welcoming. sometimes these are not even coming from their militia, but it's coming from top. dañoo ñëw jaay ji naa fexe rek. just to come and condemn waaw luñ def lu xew nii Banjul am ñaaw na NPP as a party lifin nañ ko and all that when mhm. in reality some of them are happy with those actions so for man pour man mhm. the only way to solve this soo la mënutee fight back physically take legal actions on your own. Okay. GPU as a union will never stand for you for this. Condemnation on your death, condemnation. I'm saying this on records. Mm -hmm. I'm sure they must be listening to me. Mm -hmm. Let them get, get this. I have no faith in that union because all what I see is that coming out to make condemnations that are useless in this country. Okay. So political parties will not solve it. When either GPU take legal actions on your, on your behalf okay. or you, the journalists, take action, legal actions against these people or get fight back physically. Okay. This is the only way out. Okay, so you said election uh, is over. no, no, okay, okay, no, yes. I, no, no, just a minute, yeah, no, just a minute. No, no just a minute. You, now you're having a conversation with Esa. I'm the guest. But that is exactly what we're doing here. The situation in Banjul is unnecessary. It's a steam storm in the teacup. We have better things to fight about in this country than chairs to sit on. And I think that, uh, no, no, no, let me learn. Let me learn. Lufa Hell, I'm not blaming Adam Barrow for it councillors in ñoo Banjul Banjul they should sit down together and resolve any misunderstandings when I was at Yankuba I was sharing ceremony I was sharing jokes with the governor in fact dama ne suñ national party party leader Since party président I'm going to appoint governor UDP and governor West Coast Usman Boyan and governor NPP we have these relationships at that level okay there are 100 children died here. Nobody is fighting. Why should we be fighting over chairs? Okay. I still maintain that I'm not blaming Barrow for it. Okay. Banjul okay. is one family. let them sit down and resolve their, these uh, petty problems. Okay. Yes. Okay. Um, Issa, coming back to you, Sabine, now you allowed me to talk to you, right? No, you are the boss. because <laughs> it's journalistic, you will not leave it there. No, no, no, I'm not even talking about it. <laughs> <laughs> Yes, I'm yeah. again here. Helen. borom ne ku mën sama morom duma. duma ah waaw waaw waaw léegi daal ok waaw dafa am uh, uh, question bi moo ko laaj Essa um, um, tontuwuloo ma si mooy council si. because élection jeex na mun nañoo accept loolu but politique jeexut. Euh, parce que even um, marché yi sax it's a politique comme like politique nekku ne comme like ñu am political party fi political party fële everyday activity is politics but fi mu nekkee léegi comme parti politics bi fooguloo ne Gambien si deserve nañ loolu noonu pour ñi nga ne ñoom lañ elect pour ñu tegee loolu aside pour ñu make sure ne like naka la ñoo defee seen council si pour ñu mun a bénéficier li nga xamante ne loolu mooy uh, développement loolu la gars yi présentoon seen électorate loolu loolu lañ présent si électorate si pour ñu voter leen foofu loolu léegi war nañoo bàyyi seen parti politique si aside ñu simi ko si biti demee council ñu make sure ne only mooy politique gu parparloo. Mhm. maam léegi ñu nekk ci politique gu buy tabax réew. Mhm. waaye bàyyi politique gu ŋàññanteeg lii waaye muy politique buy tabax réew. non eh, Sabal ah, ah, yi non non non non non non non ah, non du ma bàyyi Sabal déedéet Sabal du ma ko bàyyi. Sabal déedéet du ma ko bàyyi moom non non non du ma bàyyi Sabal moom waaw. Essa carré woon. non liir sax. Mhm. Um, soo ko laajtee dina at some point we have to put aside our partisan differences, mm -hmm. as a country. Um, even parliament. There was um, Amna Bena, journalist, I'm on one interview with Munamani. It's not, uh, parliament is not a political house. is a political house, don't say that. Mm -hmm. People are elected into this house political. based on party tickets. Yes. Lolumom is undeniable. Mm -hmm. Yes. And when they go there, at mm-hmm. some point, you can't say that Lolumum to reflect. because dañ am party policies and programs dañ am party visions and all that li nga xam ne for example tey nga ñëw a ruling party NPP mm-hmm. da ngeen parliament nga am UDP parliamentarian maybe NPP du ñoo doxalee UDP duñ doxalee noonu mm-hmm. so that parliamentarian obviously will likely say something that is in line with UDP you know, policies or manifestos or whatever. Mm mm-hmm. NPP candidate, uh, parliamentarian will do the same. NRP. So Lolo Dufa, Dufa Nyaka. Cancels too, when you go there, a little before nyaka. But it should be beyond that. Mm -hmm. What is more important here, Moine, you're there for the people. Mm -hmm. Somebody wants not coffee. Ne, the 15,000 difference that they have, even some NPP people might have voted for them. Uh-huh. Certainly voted. Masa Sumare and co. So, the so, Ahmed Jite team. Dega ne Rohi Malik lo mundo wale before the election. Mune baro si bopa mom la mo vote. And I believe that Mansa Gumna lolu. No, ah, mune nyo wax lolu because secret baro. Man Gumna ko. Ah, ah, what the bere? vote. But nobody can say ne baro kina vote wala kena. <laughs> Secret la. Bare Rohi la Why it's not with one vote. So they one vote la muna wane wa baro mo baro tam vote na but then <laughs> mm. and then what we saw even apart from that mm. man election being this local government election mayor election especially mm. um, I've talked to people suma what some people will tell some people will tell you that well man I'm not UDP but I will vote for Talib for example mm-hmm. so lolo one na Talib difference of about 14,000 or 15,000 boom am mm-hmm. with back from back with Bakari Baji, there are people who voted for him who don't belong to his political party mm-hmm. Understand? Yeah. So if Talib is going to be the mayor, he's the mayor for not UDP, mm -hmm. mayor of UDP, but mayor for the entire Kanifing municipality. Mm -hmm. The same thing applies to Rohi, the same thing applies to Yankuba, the same thing applies to London, the same thing applies to Mohammed Sise in Basse, the same thing applies to Sekou Jawara, you know, the, all the other mayors and chairpersons that are being elected. So at some point, partisan difference, mm, but the danger is that gis nga Wendy Haley's rotin si suuf yëpp dafa ya and this is the problem because the the the dirty politics that some of these politicians play at the at top ñi nga xam ne ñu ngi si top of these political parties the mm. dirty politics that they play the divisive wax yu ñaaw ñi nga xam ne loolu lañ dee wax and these people hear them saying those things loolu tam daf dee mën a pollute seen mind lu tax ma still I stand by that boobu ma ne la ne Barrow has a hand in this mooy gis nga kilifa kilifa sooy wax xale yi di la dégga at some point the statements or utterances that you made will inform the, the, the actions and the behaviors of the younger ones that are following you. Okay. So sometimes, sometimes these counselors will also be influenced by the type of statements or utterances their political leaders make at the party level. So at some point as a country, Fognu do away with that partisan politics. when it comes to councils and of course parliament in pushing the national agenda. loolu like comme nit yi ah, they don't like deserve ñoom loolu seen yoo nekku si ay gétoo political parties waaw different people dem liggéeyal la ñoom loolu lañ soxla right now. but they don't and I think and I think good that I've heard bu Talib doon waa. at mm-hmm. his in ceremony mu ne. he's the mayor for will be mayor for the entire mm -hmm. municipality. And I had Barrow also when he won the 2021 presidential election, even mm -hmm. though Sabel has his issues with that, but mm -hmm. he mhm. won and there's no evi <laughs> evidence before any competent court of law. There is evidence. No, no, That's the problem. man. No, no, court no, did not, the court did not, no, the court did not no, decide no, on that. You are forging the material facts. The court, we have evidence. The court refused to. No, lima, me. lima, lima. No, okay, okay, okay, okay, wait, wait, wait, wait. Just okay, Malik, just, just allow me. Evidence. Okay. Just allow me. We have Just allow me. Malik, can you allow? No, no, no, no, Malik. Allow me to complete my statement. Allow me to complete my statement. Lima don't want money. And then you come back. Yeah. There is no evidence proven mm-hmm. by a competent court of law. Yes. One election, The court yeah. not allow exactly. Us to so, the so that is that is another. So as far as we are concerned, the election that, was rigged. Yes. But also but Lema was moist. Yes. That is that that that is that is another argument. That is another. That is another argument. That is another. action election was rigged. That is another. Evidence is the mayoral results. That is another argument. That is another argument. Why anyone, eh? mayoral fifteen thousand different million arm. The people, some of the people that voted for you were I probably like the presidential. Well, all I want to know vote by Barrow 2021. They did not. They did not. So the okay. the election okay. was rigged. I, I, that's another argument. Even myself, when it comes to the 2021 I, I election. No, no, no. Just, just allow me to land now. Just allow me to land now. What I'm trying to say is that even okay. in 2021, myself, I have issues with the voter registration, but that's another different argument. Okay. I it's wouldn't go into that. Argument. It's different for it's my main No, no, no, I'm not going into no, that. That's But Lima Wamoy. He said, like his yes. opinion. Lima Wamoy. There is no complaint. Lima Wamoy. Just let him not say that there's no. No, Baro Bumwine. Okay. Baro Bumwine 2021. Lima <laughs> Wamoy, I'm going to be the president for all. Yes. And we see even in so-called advanced democracies, mm -hmm. um, of course, Obama, when he wins, he will come and say, whether you voted for me or not, mm -hmm. I've heard your voice and I will listen to you. Okay. So that is there. They, and I think it's important, um, for example, when you have our politicians in your Hamne, they make these type of statements to collectively bring people together. But Lena Latamit, Linga Hamne, what name say by Heltorop? Because many a times some of our politicians, and this is not direct, and let it, let it not be seen as I'm always on barrow, but Mumwe President. Therefore, dafa war di bàyyi xelam trop. statements you more utter, ok and the people that are around him statements in your utter. ok politicians think that they can be very selfish. They mhm. know use a divisive divisive tactics. Mhm. they will use divisive tactics when it suits them to win elections. Okay. So in Paris now they claim to unite the people. Towards the 2021 presidential election, this name, all that happened in this country, mm -hmm. especially when it comes to tribal politics. Okay. But Mungid, Momoy president. Mm -hmm. He invited some ethnic groups to the State House mm -hmm. and did not invite others. We saw, for example, you know, Dembo force made a very, you know, I mean, I mean, unapologetically, I will say reckless statement. Okay. Okay, mm-hmm. towards mm -hmm. a particular tribe. Okay. We saw, I mean, just recently, mayoral election day, John Koli, for example, former MP, for Jarol. The tribal rhetorics that was out there di wax ne joolaas yi sànnil leen baakar yan all that mm-hmm. they use this stereotype labeling Talib as naar la is a non-national foreigner and all that not these are divisive statements that are always used by politicians. bon suñ demee ba win election moo tax ma ne Barrow at some point, the might question whether he has moral license mm mm-hmm. to talk about certain things in this country. Because all these statements are made, Dule condemn. Mm -hmm. But then, when you were voting the same day, you came and said, mm-hmm. well, then you are a unite. And even after the elections. Let's forget about all that happens. Mm-hmm. When after elections, just Barki Dema, Homa Dema, he was out there again talking about Lawyer Daba, for example. So at some point, a country, di hard economic boobu tontu la boobu tontu la. boobu tontu la non li ma wax mooy. no no no just this was just how two days ago. Okay. that's different from the other one. Okay. the other response that response Mansa when he made that response I said. clearly even on my status WhatsApp status I said these are the type of response that we expect because lu mu doon wax mooy ne. Mm-hmm. moom du mun a resign because five years lañ ko jox. if anybody is to resign Darboe Darboe a resign. because contest na five elections mu lose election. Mm-hmm. at least I can understand that because mu ngi wax ne mayoral election bii will not determine. Mm-hmm. who becomes the president who does not. those are kind of response that we expect. but Barrow was so humble in that response because. Mm-hmm. it seems like he was defeated more. Mm. but then nga ñëw barki démba ah, fii we are talking No, but when you more that money, that response was good. Mm. It was good he responded that, that way. Understand? Okay. But he was so humble and you wonder why he was humble. Oh, okay. But just back in the Mbafini, no, no, you said it, he is defeated. No, no, no, ma no, Lima That's what you said and that's the truth. But you cannot tell him to say that. okay. he was not humble, no. he was humbled, <laughs> ED in the past tense. Okay. He was humbled by, he was... <laughs> <laughs> so Lima Omoy, just back in the Mbafini, again on Adabo as if like ñun politics is revolves around Loya Dabo Barrow look we should move beyond that saying that okay duma naa 2021 naa ko duma 2026. but that is the sad reality. Come, this push and pull between. no no, no, no, no. I'm still holding Barrow to account as our president. We're no more move beyond this these are not the type of petty talks You know how many we need them. just the other thing is he was also in tussle with Mama Kandeh and all that. soo dama la censuré xamut liggéey loolu rek la dama la censuré wala back so li ma wax mooy no dem ma def intro yo yo bin intro soo ma bàyyee soo ma bàyyee soo ma bàyyee waaw pare bi yaaga waaw li bi yaa would have landed okay interjection la okay baro amut liggéey xamut liggéey lu mu amoo petit toog bàyyi ko mu wax rek. ok soo ñu suñ politics bi soo ñu suñ politics bi ok suñ politics bi because we had Barrow saying that nga déggaloo yaa daaba tam di respond am ne in fact. lawyer du dee respond def dee wax. ok no ko Sabally you cannot say that he you you cannot impose on him that he is what he is saying. he has his own opinion. PDP no lawyer Darboe.

Sige, Danilo, you. This is what you see. You okay. see them so, so exactly. proud that they are sharing platform with the Kiyanka. Okay. And that's what I expect. Okay. But anyway, from um, our politics will move beyond that, really. Mm-hmm. we have a lot of issues to take care of. One of them, over 100 kids that died. And the report is out there. Nobody knows what the okay. government is doing about economic hardship. Okay. Inflation at 17% okay. is just um, you know, I mean, that is unprecedented in okay. this country. Okay. Lolo is something that the government should. So okay. I think the more pressing issues, the pressing issues, not more pressing, because the things that they talk about aren't even pressing issues. Okay. The pressing issues are the ones that the government should focus. On. Okay. So now um, the final, we are com we've come to the final part because we just um, uh, there is no time. Um, the president all the time you are fighting with Sanjay yourself. We, uh, we have not been fighting. You allow him to talk. <laughs> Um, we have seen the president as well. You know, talking about let's work together, let's come together and work the country. Uh, work, work. And he's also calling on political parties as well to come together and work. So do you think like there's a reality on that? Do you think like what he's saying, okay, we should come together and work? Um, do you think that is happening? Is it is me it, or Saban? All of you. It's a, it's a general question. No, so who's coming first? Because four will close because um, you don't have much time. No, uh, uh, like I said, man, do not blame Baroni Esan, eh, and go blame eh? Never the toxic rhetoric before election, after election, we change tone. It's all politics. I'm not excusing him for those very really inside eh, remarks. Sudan Esa Moko have been charged for incitement of violence. Mhm. Alkana sila sembo ben tollebulu. Lolo is really bad. But politics is politics. Amal lenol ma dena harinak. Mhm. So you analyze American politics as if new new I I malaika len they are angels. American mhm. India America politics is worse than anything that's happening here. Okay. Attack arts they sponsor saga hashtag. Lu nekala ñoo def. Yeah. This Obama bi a def ni muy ñu suñu wax mel ni malaika do malaika. all politicians do this. Mhm. su politics passé kañ nit ki yu rafet. Mhm. let's move. lenn la rek man Njaga Saane man maa bring up his issue sax. Mhm. because everybody was quiet man maa dem di grand bantaba ne kii he will pay for this. police yi ñoo ñu war a dimbale. some of these things when happen and to their credit and I'm still surprised I don't even want to talk. Mm. they charge Dusano. ah boo dee de but I will not talk to you. non ma li nañ ñu dimbali. certain soo ko defee àndut ak loi Let them just deal with you. Mm -hmm. But if it is UDP, they arrest you. If it is NPP, you buy. Nañ bàyyi Lulu. Lulu Mom is not even a political statement. But baroolu Mom wax nañ work together. mooy does he mean it? I don't think so. okay. nekk ni su so waaye yéen tamit mm-hmm. nga baal ma yéen tamit ban rôle ngeen si am ndax bu baroo tàllalee loxo ne dafa bëgg ñun ñëpp ñu liggéey non comme kaddu yu kaddu yu mu yëkkati ne kaddu yu woo ñëpp ñu liggéey rek la waaw léegi kaddu boobu tamit ndax ma ne kaddu boobu nekkul si moom su nekkee si moom dafa o daa Dabo o Khalifa Sala waaw ndax Ousseynou Dabo war naa xaar moom it déglul rek euh, monsieur Sabaly ndax Ousseynou Dabo moom it ginnaaw réew mi moo ko ñor Ousseynou Dabo moom it mën naa war a toog rek njiit réew mi woote rek moom it ndax opposition bi muy ko jege du Ousseynou Dabo kese euh, euh, Khalifa Sall mi ngi wax ak euh, GMC seen leader bi Ahmed May Fateh mm. keneen ak keneen ñoom it mënuñoo initier ñoom it jéem a non waruñu ko def ok lu tax lu tax waruñu ko def baro ñooñu ñëpp la daaxa si coalition am non waaye ba moo daaxee man Ousseynou Dabo su defé lolou sa man su ma wax maa ko njëkk a critiqué ngir njëriñu barom njëriñ njëriñu su dé kiko wax lim wax dé pa nek ci xolam bi baro ñun ñëpp xam nañu baro limo wax nekkul ci xolam bi we excuse him ne président na politicien la na wax but when it comes to the crunch su baro buggee rigé ak opposition o opposition Ousseynou Dabo ma xamam dafa passé lolou loolu léegi su leen woowee su len wowe non non non président of su len wowe di ngeen wuy man I don't know lolou dess na so su baro defee loolu nag Ousseynou Dabo demul uyu ji den mané ha Baro de lim de wax. loolu moo nekk si moom kon Ousseynou ñun tam nañ seetaan. wat Baro li moo wax is just rhetoric. ok eh, eh, getting back because dafa mel ni dafa dem ba convince Essa mu bàyyi war a bàyyi line am bi. bàyyi wut ko bàyyi na ko bàyyi na ko dem ko convince moo tax nga bàyyi ko wax bi gudda yaa ngi ko convince politique du jeex de. politique du Moussa Dieng. belum loolu la wax. man mii ma political event lay dem nii fóon. non non but after bi we are you softening your tone later I know we have a parliament ten inte politique du jeex. élection moo Dieng ñun dañoo continuer <laughs> sabari nga mu ne ko. mo fode nde I said clearly. Yes. I said even in parliament. I said even in parliament. <laughs> Parliament is a Okay, loolu eh, moom. Eh, nga ñëw si correction wu MC bi mooy njiiti euh, réew mi. ci mm-hmm. bu fekkee woote na jàmm ngir ñëpp léegi liggéey. Mm-hmm. Euh, ñu ànd liggéey amul par parloo amul fii laa bokk waaye luy liggéey luy tabax réew mi euh, njiiti réew mi su su woteelu lan la ci lan mooy ci rôle ku jegi opposition bi tamit seen taxawaay ndax defe naa ne réew moom du kenn ko nguur bu am bu amee. am na ñu nekk ci wet gi muy kujje gi ke euh, loolu léegi lan la ci kujje gi war a def mooy opposition bi bu fekkee njiit réew moom it taxaw na temm ba ndax keroog ci state of the nation address am na fu muy waxee ba naan euh, national unity maanaam ñëpp booloo ñu mën a xool intérêt su ci réew mi kon dafa mel ni kii mu ngi bëgg a tàllal loxo euh, gars yi moo xam def na ko wala defut ko kàddu la kerse lan moo ci rôlu nguur gi ak ñoom ñi nga xam ne ñooy kujje gi non naa loolu loolu lu am solo la national unity and all that but let alone you unite <laughs> as a country, um, I think <laughs> that's a question. Um, politically, it is normal when you have differences, or uh, different views, and all that. All political parties have one goal, that is to get to power. Government like Buga. But then how will they run the affairs of the country? Maybe that's where they differ. Mm -hmm. um, opposition i wouldn't to be to be fair with them i wouldn't say opposition if barrow doesn't approach approach no comme kilifa soo nekkee si kër nga gis ne there is a problem in your house yow yaay dem nga oo sa njaboot nga ne leen na kaay la ñu toog ñu saafara problème bi nii so Barrow um, Ousseynou Dabo moo ko mag Halifa Sallah moo ko mag and others but moom moo nekk kilifa bi tey mm. moom mooy président bi Sabali na woon people's président <laughs> yow yaa de yow yaa de xëcc Sabali sa <laughs> moom moo de xëcc Sabali léegi yow baa pare moom moom moom <laughs> so moom mooy president of the Republic of the Gambia so at some point mm-hmm. that national unity more moo wax a Mayor rhetoric just state of the nation address and all that let him reach out This nañ I think um, for na was it last year Tobaski or so I can't remember very well mu to reach out to some um, opposition politicians mm-hmm. for now call now Ousainou mm-hmm. and for now Mama Kande yes said how my, his telephone was not there, Ismaila and all that. <laughs> so, but then I, I think even at some called point, Ismaila. Well, it's, it's, not. Well, I don't, I, I, I, I, don't know. But opposition. Oh, no, no, no. This was last um, Tobaski. But oh, opposition political parties. Yes. Um, that dialogue is needed. Mm-hmm. Yes. What na am lolu mm-hmm. no between them. Mm-hmm. Um, and I, I think every genuine Gambian should support this. Yes. Ngam am dialogue bobu no. At the end of the day, muy UDP, muy PDOS, muy NPP, all political parties. If you're not fake, Gambia mola tahajuk. the interest of the Gambia moo tax nga dugg si politics moo tax nga establish a political party so if Gambia is of interest to you warut na nekk ndax NPP ñoo def lii isi development au UDP ñoo ko isi au doy ñoo ko isi at the end of the day masses askan bi ñooñu seen interest moo am solo fii nii so I think every political actor or player should appreciate this ñu am a national dialogue but that initiatives must be led by the president himself moom mooy njiit bi moo war a oo opposition political parties yi mhm. am waxtaan boobu noonu te bu nekka comme li mu def mo sometimes yu nga oo benn opposition politician that is a way of co-opting them mhm. that is not what we need we mhm. need a serious national dialogue all the opposition parties na nekk in the open Gambians will have the opportunity ñu seetaan ko listen to them and all that waruta nekk nga oo comme nga oo tey Mawa Kande wala nga oo Ismaila wala nga oo Kini Mai Fatty and all that ñu wax ne okay he wants to work with the opposition moo tax no that is not what we need mm. so we need a whole a holistic and inclusive national dialogue involving all political actors in this country. président Barroso ma la foofu rek dama war a bantu. waaw boobu mooy nekk sa last. non man non man sa boobu moo tax parce que am last question mu ko laaj mu demee ko. non but mun naa emphasize loolu. because non waaye question bi comme time fekkee Essa nangu na. parce que dafa jëw Essa dina nangu dama support li man man pare naa man nangu naa man pare xam nga lu xew uh, Barrow li mu wax la def ya oo oh, Mama Kandeh fii oo oh, Mai Fatty fii it's a joke. okay. and I want to be on the record for the Gambia. Barona or opposition in talk waxtaan ak is forced into a national dialogue today. Mm-hmm. What jarutoon mu xaar bi man I think ne Reumi uh, réew mi ñu ñëpp ah. mm-hmm. politics I na 2021 electoral cycle bi jeex na. I think there should be space. for a serious national dialogue like Essa said. Mm-hmm. not calling a politician nga ko support la now let's have a dialogue I want to be on the record ne Modou Sabally mus naa talk ay Africa. ne nañ waxtaan all the different political parties in the national interest I just want to be on the record for that yes. ok so man fi ma bëgg ñu jeexal am naa lu dañ ciy laal rek moom mooy wax ngoo fi léegi ndax bu senegal sëxatee. Gambie tis li gis ngeen jafe-jafe yu fa di xew fan yi gis nañ tamit démb am na benn euh, kilifa ci pol ci kujje gi wala ci politiciens yi mhm. di xalifa Sall addu ci di wax ne moom pare na pour joxante loxo képp koo xam ne mu ngi ci réew mi ngir nu ñu fexe ba jàmmu dellusiwaat Sénégal foofu euh, ndax moom du Mamadou Sabally UDP manager laay laaj wala ma laaj Mamadou Sabally rek euh, des na si ok kon damay ah, laaj damay laaj Mamadou Sabally Euh, moom ci boppam nan nga gisee situation bu ak lan nga foog ne euh, ban taxawaay la ci doomu réew Gambie war a war a war a def ndax tamit bari na Gambien su nekk ci réewu Sénégal nekk fa di fa liggéey am na sax dem nañ fa ba am fa ay ati ati at te xam naa kon lu géttan Sénégal day géttanaa la ñu fa nekk euh, nga gis mbir mi nu muy demee nii yow tey ban idea ak tamit lan nga foog ne war ngeen ko def ngir bokk ci luy yóbbu luy delloo jàmm foofu ci réew ma. Alphonse ah, Sénégal lu fa xew ma neexut. any African bi nga xam African the Gunga Africa Buganga Africa because Senegal, uh, example in in the whole of Africa in terms of culture democracy intellectual uh, output culture so Senegal, dal kubuga Africa rek jaama rek ngay buggal Sénégal to dañoo nekk Gambia fii nga ini Senegal, safaani jaama kon sa boppa nga ko ini so uh, man suma xalaat I think gars yi dañu war ñu resolve li. waaye nag dinaa wax leena ita tos woyam bi mu ne everybody is crying for peace I don't want no peace all I ask for is equal rights and justice na digga ak jub na sax Sénégal ak yeneen réew mi yëpp uh, in terms of UDP xam naa ne Ousseynou Dabo mu ngi follow development in Sénégal xam naa ne way before these events xelam uh, a ngi si Sénégal and uh, I think benn time dama woon interview West Coast Radio with Peter Gomez. Mm-hmm. mu laaj ma ndax Ousseynou Dabo dina bugg a intervenir in Sénégal euh, li ma tontu Peter mooy Ousseynou Dabo mu ngi ñëw dégga mm-hmm. te xam naa ne am na xalaat si lii. xaw ma lu nekk si xelam bi waaye xam naa ne Sénégal concern am la. ba fu ma daanelee rek luy xew senegal neexut ma neexut ñu. and I think dégg naa tuuti si seen interview bi. Mm-hmm. lu Halifa Sallah wax. ànd na ak moom. ñun Gambia fii waruñoo par parlu si mbiri Sénégal. dañ war a ànd ak dégg euh, waxtaan. pour xol yi nekk benn jàmma sax Sénégal man daal suma concern la every day maa ngi follow the development in Sénégal euh, Sénégal dal jàmma lañ fa unfortunately we cannot take sides uh, we'll be independent uh, observers and where necessary for want of a better word arbiters but peace in Senegal by all means necessary inshallah Senegal well <sighs> I think what is happening there is unfortunate um, independent observers, being neutral and all that. But for me, at some point, um, I'm very concerned about Macky Sall's dictatorial tendencies. I have to be very blunt with that. When it comes to political parties and Gambia government, ñoom mun nañoo um, bàyyi and xel lu over here because you know they are institutions of their own. But man, I to be to be honest with you, I'm appalled that Macky Sall nu moo yóbbee and all that he's interested in is mom nakalam and it's typical of african politician um, it's not a surprise that maki you know has turned to be uh, this type of president mm -hmm. um, so by hell 2020 2012 when maki was coming he was also equally in the opposition and one of the messages that he made was um, uh, statements that he made was even the army should be with the people and all that so uh, looking at somebody who was an opposition and ñëw to power because a lot of people trusted you and gave you that at uh, the end of the day now lu ñu dee gis every four years of March March every four years um, somebody an opposition figure in Senegal will be victimized 20 March 2015 <laughs> Karim Wade won. Um, March 20 2019 um, Khalifa sal March 2023 Usman Sonko. I don't know why every four years, mm. March, mm. Mm. somebody has to be victimized, <laughs> especially somebody who's considered a threat um, to Macky Sall's presidency. So I, I, think it's a disappointment, okay. and I must say that, well, Gambia government, in terms of their their statements on the Senegal um, on the situation in Senegal, I mm really appreciate it okay. because you also have to be very cautious. Um, okay. This is diplomacy. You have to be very diplomatic in your language to make sure that this is an internal affair. At some point, you have to be very cautious how you play around with it. Okay. But you know, in terms of ECOWAS, um, that's where I would register my biggest disappointment yeah. because just link this yes, yeah, just link this more Mm. Mm-hmm. Eh, most of these things, like just recently when they held their conference here, um, the chairman of the Nigerian Human Rights Commission did tell them that look, um, it, those who doctor the constitution, manipulate the constitution um, are equally culpable, just like um, juntas who okay. intervene, like military coup. Okay. So, now, this is a problem in Africa, and I think ECOWAS and the international community should make sure that um, leaders, um, new bias and hell in terms of doctoring manipulating the constitution because okay. Senegalese constitution is very clear two-term law, okay. whether it's seven or five years, two-term okay. law. Okay. So we cannot have leaders trying to doctor the constitution or manipulate mm. just for their own favor. At the end of the day, undesirable I am. So what we are praying for peace and stability in Senegal Thank because you. if Senegal is unstable, Gambia is unstable. Okay. so God, mi mobile ngali for the past time bi waaw moom du gërëm suñu guest rek di mm-hmm. gërëm Mamadou Sow bu baax xatoon na bi ñu koy woo mm-hmm. waaye waxtaan ak askan wi euh, foo ko woowee daf lay wuyu <coughs> euh, xatoon na bu baax bi muy ñëw fii kon gërëm ko bu baax a baax ci yitte yi mu dog noonu ngir ñëw fii ak yitte yi nga xam ne xaw na ko euh, gàllankoor ngir ngir rek daw ñu wuyu si ñu mm-hmm. esa moom it noonu la mel moom it ak lu manti xew foo ko woo bu ñëw rek xamal ni am na yitte ju ko tënk ba mënul ñëw di la gërëm bu baax di la gërëm di gërëm yéen ñu doon seetaan ba gaaw ba le di ñëw incha allah ok thank you so much Garmi na ah, that is that is <laughs> ah, thank you to Issa thank you so much for honoring um, our invitation to come and talk to Gambians I think this is what the Gambian people uh, need you know to have people like um, this to come and talk to them about national issues which is something very very important and special thanks to all of you out there who are who sitting in your sitting rooms watching us or on your mobile phones we are saying a big thank you and I hope you enjoyed this show and to our technical crew as well thank you so much for making this show happen both the camera people and also upstairs the, the technical room. We're saying a very big thank you and special thanks to CEO, uh, that is um, Lamin Kante, for making this um, platform beautiful and also making sure that you know Gambians enjoy themselves in it li leen lii leen fi amaloon di leen jégalu nag su fekkente ne wax nañ fi dara loo xamante ne ne comme xam nga méngoowut ak déggin ak yooyu noonu daal ñu leen di jégalu di leen jox dig daje ba beneen samedi incha allah ñu isiwaat benen topic bu important boo xamante ne ni nañ si mën a discuss ba pare tam ñëpp nañ si mën a gis seen boppa Mariama Thiam la woon Garmi Mbay Mamadou Sabali ak ki nga xamante ne Issa Ndiaye di suñ gesi bye bye for now